jalla wa sharafa ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa radiyallahu an cheikhina abil abbas ahmad atijani saqaana allahu min faydi maarifihi bi adami l awani assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ bi ci seen diggal ndax al imtisaalu bil awaamiri laa yadurru ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ziyaara istimdaat di la jéggalu fa tabaarakallaahu di ñaan yàlla subhaanahu wa taala sa teewaay bii nga teew fii yal na ci yal ci yàlla dëgg faj ci suñu aajo àdduna ak alaaxira ndax say soppe rekk a fi ne di la nuyu ci turu jamaaya bi jamiya gi nga xam ni fa tabaarakallaahu lépp ci sa loxo la jaar ak ci sa ndigal di jamiya ahbaabu sayidi sidi ahmed si ibn sidi moustapha si jëmi di la ci ndokkeel di la nuyu nuyu tam sa mbokk mu tedd bi nga dendal di sëriñ maam as si di la nuyu di la ziyaara di wax ni sa wayjur bu baax ba Cheikh Alxaaj Abdul Aziz Si danañ wax ni maarifatul asbaabi maunatun ala tawili xamal nit ñi lu xew dina dimbali taalifkat sëriñ bi ñu xamal nit ñi li xew dina dimbali taalifkat te toll nañ foo xam ni loo def war nga ko layal jamiya bi li ko sabab mi ngi jóge ci alaaqa bi am sa diggante ak sa doom bu tedd bii di Serigne Sidi Ahmed si nga xam ne alaaqa ya qawiya la nga xam ni fa mu tegu mi ngi tegu ci asaas boo xam ni asaasu tabaadulil xubbi wal ixtiraam yi ndax dama ko wax sànq ku nekk ci yéen bu gisee doguti Cheikhul Xaaji Malik da koy jàppee sëriñam yàlla dogal nag ñu jël tur wi tuddee ko soppey sëriñ Sidi Ahmed si fa tabaarakallaahu yàlla dogal nag ngay suñu bàyyu daara di suñu responsable di suñu conseiller di suñu gidd teg ñu ci fa tabaarakallaahu fa maam yi tegu woon ak bàyyi yi ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo ko sabab ba yàlla def na tey fa tabaarakallaahu mu àgg ci ñaar fukki daayira ak juróom-ñett 28 daayira yi nga xam ni mën nañ ko tënk rek fii ci dakaar ñu ni nañuy organiser daayira bu nekk di aye su fekkee dañ ko dañ ko def mensuel weer wu nekk kon 28 mois lay doon te at bi 12 mois la ñu ni nañu fexe ba kon nañ ko def par zone maanaam ci misaal jëppal ansaaru diine nga fi keneen a nga fi keneen a nga fi ñu boole leen ñooñu def ko ay tour de zone ñu tàmbalee ko ci kër Serigne Sidi Ahmed si moo ko ubbi fa tabaarakallaahu ba bi mujj bi nga xam ni mu ngi am fii ci Grand Yoff fa tabaarakallaahu sëriñ bi ñu lay xamal ni li ñu def suñu awlawiya ci daje yooyu mooy daara ji fexe ba nit ñi xam seen diine xam seen wàllu fiq fa tabaarakallaahu xam lépp lu jëm ci wàllu sharia ak seen jaamu yàlla ci loolu nga ñu tënkoon orientation yooyu nga ñu joxoon ci loolu la ñu ne fa tabaarakallaahu te lépp jëm ci jàppalante su ko defee nag programme bi doon programme boo xam ni mooy tëj lañ doon jàngale ca daara ji ci 12 mois yi ñu ñëw tënk ko fii loolu moo sabab jotaay bi ci tënk ngeen baal ñu waxtu wee xat fa tabaarakallaahu te sëriñ bi fi mu jógee sori na di la wax ni sëriñ bi fa tabaarakallaahu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni wala sax yàllaa ko wax xadisul xudusi la abdi lam yashkur nii isa lam yashkur man ajraytu niamata baax na wala niamati ala yadayhi sama jaam du ma sant fii ak santul ñi nga xam ne ci ñoom laa jaarale sama xéewal ba ñu jot ci ñu lay wax sëriñ bi fa tabaarakallaahu sa doom sa xarit sa soppe sëñ Sidi Ahmed si Jamil ànd na ak soxnaam ju tedd gi nga xam ni taxaw na taxawaayu bàjjan muy soxna fa tabarakallahu Zeynabu si bint Serigne Abi Bakarin si bint Cheikh El Hadj Abdoul euh, ibnu Cheikh El Hadj Abdoul si ibnu Cheikh mi ngi jàppale Serigne bi taxaw taxawaayu frère ak sœur taxawu daara ji kon moom ak délégation ak ñi mu àndal ñëpp daara ji ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen nuyu di leen ziyaara di nuyu Serigne Maam Assi waaw baax di nuyu bu baax a baax fa tabaarakallaahu sëriñ Mam si teewal fi njabootu Seydi Jamil yépp fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax fa tabaarakallaahu sëriñ bi nee na mi ngi nuyu sëriñ Abdul Aziz si al Amin bi nga xam ni mooy di doom ci suñu bàyyi sëriñ si Ahmed Sy mu sëriñ Babacar Mourou Thier moom it ñëw na moo dend rek noonu sëriñ bi ak itam seexam xaritam soppeem sëriñ Sidi Ahmed si bu suñu bàyyi sëriñ Mbaye si Mansour suñu sëriñ Cheikh Omar si mu suñu Pape Maodo si mi ngi ci yoon bi di ñëw moom sax daanaka moo la waroon ubbil nga def waxtaan wi waaye mu nekkoon ci yoon woo xam ne kilifa yi waaye moom mi ngi ci yoon bi mi ngi ñëw fa tabaarakallaahu sëriñ Mame Ousmane si moom it mooy borom bis bi fa tabaarakallaahu jàppale magam ci lu bare bari fa tabaarakallaahu moom it sëriñ bi nee na mi ngi bu baax a baax Chérif Daoud mi nga xam ni moom it sëpp Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam moo fi teewaloon njabootu chérif yëpp fa tabarakallah ak chérif mu tëdd tedd mu dend ak yow ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara njaboot suñu bàyyi Bachir Niang radiyallahu anhu ñoom it ñi ngi fi bu ñu tuddee seen Moustapha Niang fa tabarakallahu sànq moo fi yóbbante yóbbante yu am solo ànd ak suñu bàyyi bàyyi Abdou Niang ñoom it ñi ngi fi ak seeni doom ñëpp Birahim Sy di nuyu itam sëriñ Birahim Sy bu suñu bàyyi sëriñ Mbaye Sy Mansour moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax a baax ñëw na fa tabaarakallaahu ànd ak euh, xaritam soppeem Serigne Sidi Ahmed si di nuyu tam Mame Moustapha fa tabaarakallaahu di ko ziyaar moom it bu baax fa tabaarakallaahu nuyu naa ko nuyu naa ko waaw nee na ma fa tabaarakallaahu di nuyuwaat sëriñ maam as mooy borom jotaay bi fa tabaarakallaahu nuyu nañ ko ziyaare ko bu baax fa tabaarakallaahu di nuyu itam xaaj Mansour Kane mi nga xam ni fa tabaarakallaahu mu mi ngi jógee ba Kaolack moom it bokk ci njaboot gi bokk ci kër gi Mansour Niang agsi na léegi moom it fa tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu di ko ziar ak Pape Khalifa Ndiaye tam mi ngi fi woon ak ay rakkam. xaaj Malick Niang Pape Omar Niang. xaaj Malick bu suñu bàyyi Omar Niang moom itam mi ngi fa tabaarakallaahu suñu bàyyi Moulay Si fa tabaarakallaahu bu suñu maam Habib moom it ñëw na ànd ak waa daara ji ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu imaam Abdou Aziz Mbaye la àndal ñoom Ousseynou ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu ñoom it ñi ngi ànd ak soxna Umu Xayri bu suñu maam Habib si. ànd ak nag suñu sëriñ suñu xarit suñu soppe fa tabaarakallaahu suñu bàyyi Cerno Dem kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar soxna Umu Kalsum moom it bu suñu bàjjan Fat Si moom it mu ngi ci jotaay bi ñi ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaara su ngeen gisee nag ma njëkk nuyu ñooñu mujjee ci njabootu sëñ Sidi Ahmed dañuy jiital ci suñu yaay soxna Ndey Mbeng di wëy juru sëriñ Sidi Ahmed si di yaayu daara di xarit di sopp ñu ngi koy nuyu di ko ziar mi ngi ànd ak soxna far si jëmil ak soxna safiyatu si jëmil ak njaboot gi yëpp fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu itam soxna umu kalsum bu suñu maam Habib si ñoom itam fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax a baax bismillahi rahmaani alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlaana muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala aalihi wa asxaabihi wa man ixtafa aathaarahum ila yawmi ddiin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ginnaaw bu ma sante borom bi subhaanahu wa taala ci xéewal yi mu ñu méngale mu di xéewal yoo xam ni mënuñu ko lim ndax wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha maamu sang bu tedd bi toog mu di sëriñ Sidi Ahmed si mu ni anamani maalam utix bi shukrihi ñi ngi koy sant cant gu amul dayoo di julli ci soppeem bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu boroom nangul ñu ko bala ma sori danaa profité ci occasion bi wax ni alxuraan ñi koy tuutal di gis lu mànk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydi El Hadj anhu gisu ko njabootam gisuñu ko moo tax ñi ngi julli ci moom di ñaan salaatoog salaam boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ci moom wax jib na fan yi waaye jaru ko defal promotion xasiida bi maam Cheikh Mouhamadul Mansour si def ci way juram Cheikh Alxaaji Malick daf ko commencé tawxiid mu ni afil basitati maabudun xayrallaahi ndax ci kaw suuf am na fi ku ñu war a jaamu ku yàlla tontu la mooy déedéet mu ni am fi sama wala ci asamaani juróom juróom ñaar yi am na fi ku ñu war a jaamu ku dul yàlla tontu la mooy déedéet afil basitati afil basitati maabudun gayrallaahi tontu la mooy déedéet mu dem ba ci biir mu def salaatu bu yéeme dugalaale ci alu bayti rasul dugalaale ca saxaaba yu tedd ya dugal ca soxnaam yu tedd ya moo tax mu ni wal aali wa saxbi wal azwaaji xaatibatan mu ni maa ngi ñaan salaatu bi ma def ci yonent bi man cheikh mouhamadul mansour maa fil xaraatiisi tabyidun wa taswiidu fi yaa ngi yëkkati këyit këyit bi am lu ñuul ak lu weex maa ngi ñaan salaatoog salaam bi yàlla bu mu dañ di dotti ci sallallahu alayhi wa sallam bokk yi kii duggaale nanu géewu wax yu mànk yi ci fan yi jarula tontu mbindu mag ñey tontu loolu tabaarakallah ñi ngi nuyu ñépp di ziyaara ñépp di ci jiital sang bu tedd bi woote mu di sëriñ Sidi Ahmed si yàgg na koo dégg di nuyu bokkam yu tedd yi ko wuy si ñépp ñëw tabaarakallaahu dawaa ir yi soppe yi jullit yépp teew nañu tombe na defe naa ni rañaan mi sallallahu alayhi wa defoon indi julli juróom soreetul matatul semaine mawlaana cheikhuna tijaani radiyallahu anhu garaat yi ko yàlla ràngal jaare ko ci maamam rasulullahi ci fan yi la woon anniversaire u julli soriwul matul semaine anniversaire fi ñu ràngale Cheikhuna Tidiane garaat yi soriwul mu yor garaatu mag tuum a ah, sëriñ bi woote mu tombe tabaarakallah ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ci turu ñi ma àndal jóge Tayba ak tund Mbakol dinaa ci tudd papa Abdoul Aziz Niang tey moo fa toog ñu di ko xoole mag ña tabaarakallaahu waaye na la leer ni njabootu sëriñ basiiru ci mbooleem fukki région yi ak ñeent ku mën a ñëw ñëw nga ku mën a jàpp ci bés bi jàpp nga ci duñu ci sori noonu la ko sëriñ basiiru daan defee ak lu woote ci kër gi dana wuy ji ak lu mu am tabaarakallah sëriñ bi ñuy sant yàlla bu baax danay wax ni jur gépp genn la sàmmu see wuute te kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi nee na kenn ku nekk sàmm nga te ku sàmm ku ne yàlla dina la laaj ëllëg la nga doon sàmm maa ngi rafet njortu ci ni insha allahu taala dinga jofal yaag ñi nga ko bokkal gën jaa rafeti jofin waxkat bi dafa ni laa taajaban min halikin kayfa hawa bal faajaban min saalimin kayfa najaa fi jamono toll nitu yàlla bi nee na ki raw rawale pasam pas-pasam moo ko jaaxal waaye ki lab ci àddina lab ci bànneex seytaane waayoo ko te muy dëgg nee na kooku jaaxalu ko ndax sa maam waxoon na ko bada addiinu gariban wa sa yaudu gariban fa tuuba lil diine dafa njalbeenoo tumuraanke ak metti te moo di na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jote di ko doxal ba mu dugg mbooleem cinq continents yi bi muy dugg Europe Espagne ca dëkk ya mu njëkk a dugg ca la bokk moo tax ba ñu ko fay dugal bi ñu egsee ba Espagne ci ay bateau la ñu ñëwee ki jiite woon guerre bi bënn gaal yépp sànni ci biir géej mu di mu ni leen aynal mafarru albaxru min waraikum wal aduwu amaamakum pexe jeex na géej gee fi féete ci seen càmmoñ ci seen kanam noon yee fi ne fu fi way soobu baax na tabaarakallaahu noonu la ki ko fi wuutu def mu di mawlaana cheikhuna tijaani radiallahu anhu ki ko fi wuutu mu di seydil hajj malik noonu la jëfandikoo tabaarakallaahu moo tax ci waxu Cheikh Seydi Aboubacar Sy maada tara min rijalillahi kullihim wa huwa almumiddu bihim wa nuuru yaxsaahu ci Cheikhuna Tijaani kon ñun ñi yàlla boole ci seen njaboot ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax du ngóora du juddu bu rëy du bari xam-xam du bari alal yàlla lay baaxe nga bokk ci mbooloo Seydil Hadji Malick inna duxula uxayya fi tariqatina fa bil machiati la bil kaddi jusmani waaw bari pexe bari xam-xam rëyub juddu boolewula ci am na ñu dund luñ ko gisee woon abdallahi ko jur yaayam lañ ci xamoon ma al yàlla boolewu leen ca loolaay dox saa su nekk moo tax bis bii nanu ko sant yàlla di ñaan Serigne Sidi Ahmed yàlla yàlla yàggal taxawaayam secret bi nekkul ci at yu bari moo tax waxkat bi ni qul lilladi ahsa sinina mufaaxiran ne ko yaa saaxi laysa sirru fi sanawaati lakinnaha fi lmari kayfa yaishuha fi yaxadatin am fi subaatin amiqin at yu bari te boroom defu ca dara amul solo waaye sëriñ bi at yi de naam ci zahir bariwul waaye tabaarakallaahu yal na sa mission egg ak kooko bokkal bu ñépp daanoo ca teen ba ba ña ca walu daanu mbasa ca pind ba lebal nganu loo xam ni lebal mënatunu la ko fay dañuy am rekk di ca dawal sa bàyyi nee na nit ki boo ko xebalee bésam yaa ko tooñ boo ko xeebalee soxlaam yaa ko tooñ ak yamu ca teg moo tax njabootu Serigne Bachiru mënuñu la fay papa Abdou léegi la may wax mu ni ma ñi mu ko bokkal bokk ak ñoom wàcc waay bari na waaye ñëw Tayba ci bis su Serigne def fa ñaari fan fanaan ajjuma fanaan samdi dimanche nga dem Serigne bi mënuñu la fay yal nañu yàlla wuutu fayal ñu fayal fayal ñu la. wax ji dafay gudd te man dama doon rek présenté délégation bi jóge ba di ñaan ni ñu ko teewee ren yàlla nañu ko teewee déwén barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma dalika ala allahi bi azizin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa dañ ma yónni woon yóbbante ma sëriñ Aliou Ndiaye miy délégué de quartier bi nee na bis bi du jóge ci quartier bi bu xatee nañ ko fi def nee na waaye ku gis li ci biti xam ni xat na li ci biir li ci bitee ko ëpp ah sëriñ Alioune nag nee yóbbantewuma la dama la yónni neena na bis bi du génn kàrce bi parce que gis na fi yokkute ak soppeeku mu ngi sant bu baax a baax nag ak mbooleem waa quartier bi tabarakallahu loolu xëy na daañ ciy ñëw ci kanam salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa barakaatu. nee na mi ngi ziyaara mbokk yi fi teew yépp di leen masawu coono ci toogaay bu yàgg bi jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu sang bi di suñu bàyyi di sëriñ Habib Sy mu suñu maam Cheikh Alxaaji Abdul Aziz si bu suñu maam Cheikhul Xaaji Malick Sy ibnu maam Ousmane Sy radiyallahu anhu nee na di nuyu di ziyaara sëtu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mii toog nee na shérif ñu ngi lay nuyu di la ziyaara yow la ñu waroon njëkke ndax sa maam sallallahu alayhi wa sallam moo ni su ngeen fekk sama askan jiital leen leen xaddimu qurayshan kon nag nee na tabaarakallaahu shérif ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ci sa wàccuwaayu maam ci sam sa wàccuwaayu maam sallallahu alayhi wa sallam nee na mi ngi nuyu njabootam suñu baay alxaaji Bachir Ñang yépp nee na ñi ngi leen koy jaal itam yal na yàlla yokk leeram bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nag sëriñ Sidi Ahmed si ak doomu baayam yi ko wuyu si sëriñ Abdul Aziz ak sëriñ Sidi Ahmed si bu suñu bàyyi sëriñ Mbaye si Mansour tabaarakallaahu ak sëriñ maam Ousmane si fa tabaarakallaahu di nuyu tam suñuy yaay soxna Ndey Mbeng moom mi nga xam ni ñëwam gi dafa taaral jotaay bi yal na yàgg uuf njabootu Cheikh Seyd Mouhamadul Moustapha si Jamil yëpp di nuyu suñu bàjjan soxna Umm Kalsum bu maam Habib di ko ziyaara di nuyu delegation bi bi mu àndal ki ci jiitu di Cerno Dem di borom këram fa tabaarakallaahu nee na nag sëriñ bi nee na mi ngi nuyu patron wam soxna Fat Si mu Seydi Jamil nee na mooy patron wam nee na di nuyu itam boroom këram sëriñ Cheikh Ndiaye nee na nag di nuyu notable yi nga xam ne ñoo fi teew yépp di nuyu ci maanaam di jiital ci nuyu waa quartier bi monsieur le maire ak délégué de quartier bi suñu bàyyi Aliou Ndiaye suñu maam bi ñu présenté sànq di di di maam ci ñoom Serigne tabaarakallaahu di gannaaw loolu di nuyu ak di ziyaara kilifa diine yi nga xam ni tam ñoo fi teew oustaz Abdou Aziz Dieng bu rajo Dunia sëriñ bi nee na ñu ngi leen nuyu di la ziyaara nee na El Bekaay Mbay tam ñëw na fi ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar ak ñépp ñi nga xam ni ñoo fi teewal presse bi fa tabaarakallahu daayira bi yépp ñu ngi leen di nuyu nee na ñu ngi leen di jotalit nuyoo suñu mat di Cheikh Al Hadji Mansour Sy ak ay rakkam yépp nee na ñu ngi leen di jotal seen nuyoo neena na Serigne Habib professeur moom it tabaarakallaahu nee na voyage moo tax teewu fi nee na ñu ngi koy nuyu. di nuyu soxnaam tabaarakallaahu ndey faatu tabaarakallaahu nee na nag mi ngi wax suñu bàyyi sëriñ Habib si ni ko na jotal suñu nuyoo ak suñu ziyaar ci xalifa ba di Seyd Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum ayyadahu wa nasarahu ak rakkam yu baax yépp nee na sëriñ Aziz si Al sëriñ mbay si Mansour sëriñ Sidi Ahmed si sëriñ Pape Malick Sy Cheikh Al Hadji Malick Sy Maodo Pape sëriñ Mbaye Sy Abdoul Aziz ah tabaarakallaahu ak seen rakk yëpp ak mboolem njaboot Sidi Hadji Malick nee na nag sëriñ Habib si ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax ñu ngi lay ndokkeel ci sa jarbaat bu baax bii di soxna Faat si miñ doon maye sànq nee na sama bàjjan lal la ak sam bu sama bàjjan lal la ak sam papa papa Abdoul Aziz di ñaan yàlla yal na yàlla wasal barke ci sëy bi bi jaahi seydina muhammad sallallahu alayhi wa nee na yi ñu fi annoncé yëpp ci ay sëy war a ñëw ci kanam yàlla na ci yàlla dugal loxoom bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nee na daal lu la bett mën la nee na wax naa ko léegi ndigal moom li sëriñ Mansour borom daara yi daan wax rekk radiyallahu anhu ndigal boo mënee defal boo mënul defal nee na sa maam Abdul Aziz radiyallahu anhu dama ko dégg muy nettali benn ganu sa maam Cheikhul Xaaji Malick mu ñëw gane ko mu ni ko toogal ci lal bi taalibe bi xam naa ñeewanti na toog ak sa maam Cheikhul Xaaji Malick ci lal bi neena na sa maam jël benn espèce su tagal ni ko waaw léegi toog ci waaye ba tey waa ji xormaam daal mayu ko mu toogal moom ci kaw lal bi nee na daal mu toog ci catu tagar bi sa maam seet ni kii toogaayam bi mën na ci daanu mu mel ni xaw lu gëdd waa ji ni ko toogal al imtisaalu laa yaduru jëfe ndigal du lore kon nag tabaarakallaahu ah mu mel ni moo ko dal tey digganteem ak baayam bu tedd bii di xaritam nag di sama soppe tabaarakallaahu nee na mi ngi koy tooñ léegi nee na tabaarakallaahu ci melokaan bi macha allah yal na jëm kanam sant yàlla daal moo ñu war sëñ Sidi Ahmed nag mënuñu koo fay tabaarakallaahu ndax ku déggal ay magam la ku dégg ndigal la nangoo dox service su kër maamam ak service su kër baayam ñi ngi sant njaboot Seydi Hadji Malick yépp bàyyiwul kenn góor ak jigéen mag ak daw gis na niñ ko taxawoo zahiran wa batinan nee na si Malick lii nga def yal na nga ko yàgg def yàlla def na nee na ba ma jël sama taaw soxna aasi def ko muy sa séddoo moom ak sëñ Habib nee soxna aasi si suba ba léegi fii la nekk nee ànd ak ay rakkam tabaarakallaahu nee na ak càmmiñam ak seen càmmiñ sëñ Babacar fa tabaarakallaahu seen wayjur soxna Jeynaba mi ngi lay ndokkeel ak rakkam soxna Maam Kumba tabaarakallaahu di di nuyu délégation bi nga xam ni ñi ngi jóge ci suñu sang sëñ Moustapha di di daayira mustarshidina wal mustarshidaat te suñu doomu bàjjan xalifa Sarr jiite ko tabaarakallaahu di leen wax ni su ngeen demee ngeen nuyul ñu ko santal ñu ko gërëmal ñu ko dawaayir yi fi teew yépp tabaarakallaahu ñi ngi leen di ndokkeel di leen ziyaara di leen massawu ki doon jàng alxuraan léegi di sëñ Moustapha Ndiaye di doomu sëñ Bachir Ndiaye radiyallahu anhu di suñu baay bu suñu baay Cheikh Ndiaye Mabey radiyallahu taala anhu ak Umu Xayri Ndiaye Umu Xayri Ndiaye way juram suñu baay bu suñu ma bu sëriñ Mamour Ndiaye maa béy moo ñu jàngal alquran waaye nag nee na sëñ Mansour Sy Djamil nee na moom sëñ maam As ak sëriñ Mansour Sy Djamil ak sëriñ Babacar maamam boobu moo leen jàngal alquran fa tabaarakallaahu moo doon tari alquran léegi di Moustapha Ndiaye di ñaan yàlla. nee na at bii ñu teewe ren yan nañ ko teewe ndégéni déwén nee ki nga xam ni tam moom lañu jagle mbir mi di sa maam Pape Mansour radiallahu anhu yal na yàlla yokk leeram waa ku ko mérito la ndax lu ne def na ko nee na ngir yàlla diine ji ak tariqa bi fa tabaarakallah lu ne daj na ko ci yal na yàlla yokk leeram lépp luñ ko defal mérito na ko te te it sëñ Sidi Ahmed xaritam la woon moom sëñ Mansour doon léppam nag tabaarakallaahu nee na sëñ Mansour ku bëggoon Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha la nee na daan faral di wax ni seen baay mënuma koo fay ndax tekki na sax gàllaajam jox ma nettali na keroog bi taawam sëriñ Cheikh ganee àddina te mu waroon ànd ak suñu bàyyi sëñ Muniru Saar radiyallahu anhu ñëw ndokkeel ci sëñ Moustapha yaram bi sutante mu seen sëñ ni ko du ma mën a dem waaye lu mu gàtt gàtt maa ngi feek benn bëyit boo xam ni benn xasida boo xam ni xam naa ni daal boo demee nga àgg ko góor gi nee na mooy wayam boobu muy wax ayaa rakibal baabuur yi aha nax wi Dakar ah, ah. way guddoo guddoo gudd la nee na daal loolu la ndokkee lay sëriñ bi jox ko ko tabaarakallaahu na nga xam ni ñoom seen diggante sori na ñuy ñaan yàlla yal na yàlla yokk leeram moom ak doomam ja soxna Asiitu Si nee na nekkoon moom it suñu xarit di suñu soppe fa tabaarakallaahu kër gi nag nii la tëddee tabaarakallaahu moom la doon waxtaan ak léegi pàppam ni ko ah pàppa lii moo ñu war fexe ba kër gi nekk benn xol yépp bokk mu ni ko sa wayjur wa dey suñu maam alxaaji abdul asiis radiallahu taala anhu da daan wax ni ñaar nit du ko ëppale boppam nit du ëppale boppam nit waaye itam du ëppale boppam ay mbokkam nee na lu la mën yàlla mënti may ci daraja moo xam ngay président walla ngay xalif walla ngay imam wala ngay président daayira gisagoo ku yàlla takkal ndomba tànk nee na ba nga saxi laaf di naaw nit rek ngay doon nee itam nit du ëppale boppam ay mbokkam nee na sam papa su ngeen demoon tey ci bërëb nga ànd ak sa doomu bàyyi buñ ko nee si ne la nee na du ñu wax si plus wala si moyen si rek ngay dégg nee na ba tax na fa tabaarakallaahu yal na yàlla dolli sutura yal na yàlla taxaw bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa ngeen baal ñu ci ndigal la koy defe dañ fi jot léegi nouvelle bu tiis nee na ñun ñëpp nañu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu bàyyi alxaaji Seydi Wele moom lañ ñu tàgge léegi tabaarakallaahu yal na yàlla yokk leeram wanale ko maamam alfaahima yoro wele maamam cheikhul xaaji malik radiallahu anhu nekkoon góor gu baax nee na fonkoon kër gi xamoon lu bari ci kër gi tabaarakallahu yàlla nag li ko soob rekk lay def yàlla mooy faalun lima yurid wa maa tashaauna illa an yashaa allahu rabbul aalamiin suñu bàyyi Mansour suñu bàyyi Mansour bu suñu maam Habib radiyallahu anhu moo yegg si léegi ñu koy dalal nag di ko wax marhaban bikum daanaka daal mbir mi fa tabaarakallahu nouvelle bii ñu am léegi du way bu baax alxaaji Seydou Wele dafay faral di wax ni bibliothèque buy dox la ndax li mu xam ci kër Cheikhul Xaaji Malick ak ni mu xamee histoire maam Alfaahi ma yoro wele maam Fawad du wele gëwmul ma ni am na ku ko xamee noonu dama daan waxtaan ak doomam sëriñ xaafis wele mu ne ko man dey sama xel dafa nekkoon ci li alaaji ni alaaji Seydou wele di waxtaane ñu koy enregistré ci kaset jaay ko jël recette bi jox ko ndax mérito na ko ndax kat. nee na ñu mel ni moom. taataanul seen i nee na suñ dul taataan seeni i jëf. ba ñu dem dina yéeme. tabaarakallaahu. su masaan ci ëttu sëriñ Babacar ba. wala bu Cheikhul Xaaji Malick. radiyallaahu taala anhu. lam eh, fa ci xam. lam fa daan sotti ci xam-xam. da daan yéeme. nee na Chérif Ibrahima Haydara at Tijaani moo agsi léegi ànd ak délégation am ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara Chérif tafaddal nee na nga agsi ci kaw Chérif ci sa barke maam nee na nga agsi ki kaw Chérif ci sa barke maam nee na ëpp naa def fi nga toog nga agsi ci kaw ci sa barke maam tabaarakallaahu xam naa mi ngi guddi te it waaw nee na mi ngi jégg jéggalu Thierno Bachir moo ko woowoon fa la nekkoon bisimilah su ko defee nag suñu way jur wii nga xam ni moom lañuy ñuy waaj a jox kàddu te moom moo moo yor waxtaanu guddi gi suñu bàyyi Habib si di ko yàlla may woy juram Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz si yar ko fa mu ko war a yare jàngal ko ba mu génn dem ci réewu naar ya sàkku ji fa xam-xam tabaarakallaahu ñëw ànd ceeg teey ak discipline bu mat sëkk tabaarakallaahu nee te kër gi loolu lañu soxla teey teey ndox tax ñu na suñu ndoxa nee na tey buñ koy wax ndox moo tax ñu koy wax waaye ci nit la gëne macha allahu yàlla defal na ko sëriñ Habib si nee na ak suñu njabootu maam Cheikh El Hadj Abdou Aziz si noonu la leen yàlla binde tabaarakallahu yàlla bu cat jiitu di ziar suñu baay bi mu dendal. di sëriñ Mansour si bu suñu maam xaaj Habib si Chérif Ibrahima Haydara Atijani ñu ngi lay ndokkeel ci sa xarit sa soppe seen Ahmed si kenn umpalewul yàq moom seen diggante foo nekk yow Chérif fu ñu tourné gis fa seen Sidi Ahmed moom itam fu mu nekk bu ñu tourné gis ko yawit ci sa fa tabaarakallaahu yal na yàlla dolli sutura yi nee na yàlla nañu yàlla defal jàmm ñu ngi ñaanal mbooloo mi yëpp nii ñu ko teewee ren yàlla nañ ko teewee ay déwén alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa tabiahum bi ixsaanin ila yowm ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi ànd ñun ñëpp di santaat yàlla ci mbaaxam gu mu ñu mayewaat ñu dajewaat fii ci loo xam ni mbaaxam la ak coobareem am na ñu bari ñoo xam ni bokkoon nañu ko bi ñu ko fi mujjee def walla mu fekkoon leen ci àdduna waaye tey ñu nga ca barzax yal na yàlla yokk seen leer ñun ñi fi desandi itam du ñàkk waaye yal na yéex ndax qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum waaw qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduuna ila aalimi alxaybi walchahaadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun ñu agsee fi ak xibaar boo xam ni moom la maam as doon wax léegi muy alxaaji Saïdu Wele yal na yàlla yokku leeram Euh, doon kenn it ci kër gi di kilifa ci ñun ñi fi toog ñëpp fa tabaarakallah waaye àdduna noon la bi ma fi mujjee ñëw su ma juumul ñu nag alxaaji Bachiru ñang cheybat alhamdi ñoo bokkoon toog fii waaye tey animu cheikh alxaaji Mouhamadul Mansour alxalifa al aam li tariqati moom itam fa tabaarakallahu ku déglu waxtaan bi ñu fi mujj a def jamono boobu yaakaar naa mi ngi won ci kaw suuf waaye ñoom ñëpp tey ñu ngi ci biir suuf Saïdou Wele jël wàllam tey wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir waaw fa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir adduna noonu rek la kullu man alayha fan kullu nafsin daa'iqatul mawt kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika dul jalaali wal ikraam euh, yàlla nee na boo ko dee seet dee sax la jëkk a bind dund tabaaraka alladi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli cheyin qadir alladi xalaqa al mawta wal xayaata ndax li lu yabluwakum ayyukum ahsanu amala kon ñoom ñépp ak ñi ñu yëg ak ñi ñu yëgul fa ñu nekk ca barsax yal na yàlla sëmbërtël mu njëggal ak mba ak mboolem néewu jullit ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñun ñii fi desandi yàlla nañ fi desandi ba ca kanam a kanam a kanam ba faawu mënul am mënul am waaye mën na yàgg kon nag yàlla nañ fi yàggandi rekk te yàggandi fi nag ci li neex yàlla ba bu ñu dee dem itam mu woyof toyyu te fekk ñu dajeek yërmande suñu borom loolu rekk am solo yàlla nañu ko yàlla defal bu ñu santee yàlla di nuyu bokk yi fi teew yépp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ziyaara di leen ndokkeel ci lii nga xam ni ñu nag yéen ñoo ko bokk yàlla jaare ko ci loxo sëriñ Sidi Ahmed bi mu sàkkul ñi yiwu tol nii waaye ñu nag yéen ñoo ko bokk ndax tànt bi tàntu yonent bi la tàntu yonent bi nag képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci nga bokk kon ñu ak yéen ñoo bokk jataay bi ñuy jéggalu ci waxtu wi ñu fi agsi nit programme am la xam ak bëgg-bëggam waaye yàlla dogalam ak la mu namm rek la xam moom yàlla lu mu ci doon rek yàlla na fekk mu nekk jàmm ñaari xew-xew daje te mënoo cee bàyyi benn ñu ni comme ñu nga woon Tiwaawan ba yëf ya fekkuñu fa nañu def pas-pas ba foofu ba pare ak kilifa ya ñu ànd doorey ñëw fii ñi ñu fi fekk ñoo leen fa wuutu woon waaye ñi ñu fekk fii ñi ñëwul woon ñoo leen fa ñun waaye ñi ñu fekk fii ñoo ñu fi doon xaaral ni noonu rek la àdduna yàlla rek a mën fu ne mu teew fa waaye ñun ñi ci des ñépp kii day dem fii kii dem fii rek fa tabarakallahu ahsanul xaaliqina kon wa ala kulli xaal ñu ngi ciy sant suñu borom ndax lépp yiw la incha allahu taala ñu ngi nuyu nag góor ak jigéen mag ak ndaw ci ñi fi teew ak ñi fi teewul nekk ci kër yi di déglu di leen ziyaara ñoom itam di leen ndokkeel ci bés bile te di ñaan yàlla yàlla nañ ko fi yàgg teew ci barke yonent bi di nuyu bu baax a baax a baax soxna Ndey Mbeng maa ngi wax léegi Ibrahima ni ko bi may ñëw dama ko sedduwul ndax dama xaw a waaxu mel na bi may dugg si ci tànt bi waaye li rafetoon jaadu ci man mooy ma jàdd ci moom jox ko loxo nuyu ko ziyaar ko waaye kon xajja soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaara di la jox itam sa cër ak sa wàccuwaay ci ñun ndax fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqina lii dina dalal xelu njaboot kon yal nañ la fi yàgg fekk nga yàgg uuf njaboot gi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu bu baax itam waa kër yonent bi fi teew kii ci sama càmmoñ wax nañu ni sëtu sayiduna muhammad la kon ñu ngi koy jox wàccuwaayam di ko jox cëram fa tabarakallahu ahsanul xaaliqina loolu la leen yàlla defal seen maam a tax li xew yëpp di xew kon nag fu ñu leen fekk rek war nañ leen mën a jox seen cër du def lu dul yokkuñu rek ñun incha allahu taala kon Cherif ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaara di ñaan yàlla yi tamit nga nangul ñu suñu ziyaar noonu la ñuy nuyoo tamit Cherif Ibrahim Haydar fa tabarakallahu moom itam mu nekk sët ci yonent bi ñu xam tuuti digganteem ak Sidi Ahmed bii at mu nekk ñu di fi daje ak moom fa tabarakallahu kon Cherif yow tamit ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la jox sa cër di la jox sa wàccuwaay ak ñi nga àddal ñëpp fa tabarakallah yal na yàlla yàggal taxawaay yi ci barke yonent bi seen maam noonu laay nuyoo itam sama kilifa gi toog sayidi muhammadunul mansour li may wax yépp sax ci ndigalam laa koy waxe waaye ñu ngi koy nuyu moom itam di ko jox cëram ndax moo fi wuutu suñu ay kilifa ndax man mooy sama kilifa ci jataay bi di ko jéggalu sax toog bi ma toog ak moom fii ci kaw ndax ma moom kenn du ko jox ki nga ko war a jox ba pare rëccu di ci am ndax bi xurmatin wasala man qad wasala kon Serigne Mansour ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziyaara noonu itam la ñuy nuyoo soxna Umu Kalsuum di doom ci suñu sëriñ di doom ci suñu turandoo Cheikh xaaji Hadj Mouhamadul Habib si radiyallahu taala moom ak boroom këram di Cerno Dem dajewaat nañu fi yàlla nañ fi yàgg daje ci barke yonent bi ñenn ñi yóbbaale ñi ci des géew ndax mi ngi guddi kon ñu nuyu sëriñ Bay Si bu Cheikh Al Hadj Malick Maodo mi ngi ànd ak ay rakkam ñoom Pape Ndoy tabaarakallah Pape Habib gis naa ko moom dafa may nax rek sànq la ma nuyu ca Tiwaawan fekk sëriñ Bay jox ma parfum bu neex bu mu ma indil mu naan ma papa boo gisee yi ma yor ma ne ko bàyyil man bi ma gis laa gis man yi nga yor moom gisaguma ko Ah, waaye lii yëpp mbégte la rek wax dëgg yàlla nii rek la war di deme yàlla na yàgg Sénégal a neexu la waxe waaye bu Tiwaawan yépp àndee senegaal tegu ci yoon te incha allahu taala ñu ngi ci loolu la yàlla def xamuloo ni léeg-léeg nga dégg mag mu takk rajoom rekk lu ko neex wax waaye olof jaay dafay wax ni bu jàmm yendoo ci pénc ma nga fa xam dëgg gu mu waxul maa la ko wax ma ni bu jàmm yendoo ci pénc ma nga fa xam dëgg gu mu waxul léeg-léeg nga dégg ay njaboot yoo xam ne dañuy tappaas di tooñ rek ma ni kii day ku ko waxoon li xew lay kon léegi mu ni nemm waaye nag wala tumaari jaahilan fa tataaba kon ñu ngi ñaan yàlla liggéey boobu mag ñi bàyyi woon ci loxo suñu kilifa yi fi ne ku dem tey Tiwaawan béggati nga ndax ña bokkoon jataay ba kàddu ya fa jib te loolu yépp ñu def ko ci ndigalu ki fi yàlla teg tey muy sëriñ Cheikh Tidiane si almaktuum yàlla na fi yàgg te wér moom itam ku fa ñëwoon Tiwaawan tey rek sa xol sedd na wala seddati na bokk loolu ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàgg te yàlla kàttanal leen ñoom ñi fi des suñu kilifa yooyu ñu tudd léegi yal na yàlla yokk seen leer dinaa ci ñëw ci kanam ñu ngi nuyu itam Cheikh Al Omar moom nag géej naa ko gis sànq rek maa ngi koy tooñ ca Tiwaawan bu bu bu Cheikh Al Hadj Malick ñu ngi nuyu itam Sidi Ahmed bu Serigne Mbaye Sy Mansour moom itam wax naa ko ni ko waa Sidi yow foo réer moom comprendre na li ma bëgg a wax. xam nga li xale yi di wax naan jëli nga ma fa tabaarakallaahu ñu ngi nuyu itam Mouhamadul Moustapha Niang bii nga xam ni moom itam ndeysaan ku ko gis gis Mansour ci wetam sa xel dem ci alxaaji Mouhamadul Bachir Niang Cheybat di yàlla na yàlla yokk leeram di nuyu ñëpp rek moom foo tourné rek am koo fàtte waaye ku ñu tuddul ci suñu làmmiñ ñitam nga xam ni ñu nag yow ñoo bokk yëf yi tudd nañ la ñu nuyu bokk yi nga xam ni ñoo dëkkee barab bi yaatal Sidi Ahmed ba lu ñuy tudde daara am fi kon ñu ngi leen di nuyu dontele ñu ci bare bare sax xëy na xamante wuñu ak ñoom walla jotante ak ñoom waaye ñu yëg ni Sidy ngi def lu mel ni ñu yaatal ko ci karce bi ba yaatal ko néeg yeeg kër yi faaw sant leen wan leen ni njaboot gi yëpp ngeen ko defal kon yal yàlla fay leen yiw ci barke yonent bi ñu ngi nuyu bu baax a baax dawaayir yi nga xam ni ñu ngi fi dale ko ci daayiratul mustarshidina wal mustarshidaat bu sëriñ Moustapha bu Serigne Cheikh ñu ngi wax ni ñu ngi fi daayira yëpp rek yi ci des yëpp rek ñu dugal leen ci foofu mi ngi guddi loolu moo tax ñu dugg fa ñoom ñëpp nuyu leen ziar leen ñaanal leen yàlla yiw ñi nga xam ni itam ñu ngi fii ci tànt bi te am ay domba tànk yoo xam ni ñu ngi ko am mu jëm ci wàllu réew mi te yàlla jox leen ko ñu ngi leen di nuyu ñoom itam di leen ñaanal yàlla yàlla may leen ndam ak réussite ca mission ba mu leen dénk ndax yëf yi dénkaane la doomu aadama surtout sénégalais ñoo gaaw a fàtte waaye fii euh, diggante 2000 ak léegi lu ne xew na fi waaye diggante 2012 ak ren itam lu ne xew na fi waaye ma bëgg sénégalais yi delloo xel parce que am na lu xew fan yi Sénégal lépp théâtre rek la nit ñi dañu yab rek yabaate la rek dem ba mu neex la rek nga dellu si wala kenn ku nekk yore sa rajo rek di wax population bi di ci rey moo tax sénégalais yi xale yi surtout nañu def très attention nañu delloo si xel yi ñoo xam ni bu ñuy juboo doo ko yëg bu ñu la jaralee xeex ci mbedd doo nit ñoo xam ni bu ñuy juboo doo ko yëg ñu jaral la yow nga doya di ba yegg ci reyante ci mbedd mi te seeni doom nekk ca université di jàng xama loolu xew lu jara bàyyi xel la waaye loolu yëpp ay théâtre la rek amee ñu rek amee ñu rek amee ñu rek amee ñu rek c'est la réalité du waxtaanu tey wi waaye ma delloo ci xel yi nit ñi rek surtout jeunesse yu Sénégal na ngeen fexe ba ngeen xam responsabilité yi leen yàlla jox ndax ku ci wax rek ni yéen a yone réew mi ëllëg waaye bu fekkul ngeen waajal ko dina doy waar am na benn woykat bu ma dégg bu yàggul mu ngi génne benn CD bu yàggul CD baa ngi tudd souvenir xale bi Ndour la de nu mu tuddati ah Youssou Ndour euh, dégg naa mu wax ci titre yu am solo waaw ndax way nag dafay jariñ bu jariñul rek nga tànqal nit ñi moo tax artistes yi moo doonee ne faf nañu nekk aar bi mujj na nekk aaran ku jóg rek ñu ni artiste nga artiste nga nga dajale sa ñetti potu potu potu meew bi la rek tànqal nit ñi te li ngay wax dara jaaru ci yoon Sénégal la neex rek gis nga fii sëñ Babacar si radiallahu taala anhu dégg naa moo daan wax nii xelu sénégalais nawet bu nangu la loo ci ji rek mu sax xelu sénégalais nee na nawet bu nangu la loo ci ji mu sax waaye ku gis ni yëf yi di doxee nga xam ni ba léegi ils n'ont rien dëgg yàlla waaye yal yàlla def jàmm rek ci réew mi tey li ma ci gën a metti mooy loolu moo réew moo xam ni boo ko taalee jàmm ja yow doo ko fekk loolu ñaan mu takk te dama daan wax at yi yëpp ma ni leen damay dégg suñu mag Mansour mbay mu naan yàlla du seetaan yenn yi ci Sénégal ndax El Hadji Malick nga fa tëdd Cheikh Sadou Wabi nga fa tëdd keneen nga fa tëdd ma ni ah dëgg la de waaye ñoom itam dañu liggéey rek dem nag te lañu liggéey ku ko nar yàq yàlla dox sa diggante ak ñoom def li mu bëgg a def ci njaboot gi dara la ci nit mënul waaye Sénégal ñu ngi koy bëgg yàq te dara yàq ko lu dul politique ak parparloo sëriñ boo ci gis mu ni ku dul moom du dara ku bokkul ci moom doo kenn bii xatal ba kañ koo bokkalul parti politik bu ngeen dégloo rajo yi suba ba ngoon jot programme yi ci am lu mën a jariñ nit barewul programme yi ma dégg ci rajo yi léegi lu ci bare bare bare bare génnul yi may bëgg tudd làmb ji politique bi ak dàggasante ci ñoo xamante ni bii nee na ñu ñoo bëgg yore réew mi am fu ñu ko jëmale nga dëkk ci suba ba ngoon jot di dégg ñuy waxante lu ñaaw loo xam ni kenn mënu ko dégg amee nit ñi rek amee nit ñi rek tanqal nit ñi rek te bu ñuy séddoo doo fekke bu ñuy jokkalante teraanga doo ko fekke peuple sénégalais bi nekk ci biti rek ndeysaan ñoom di bëgg a dee ma wax ni bu ñu demee ba talatuñu ñu ñun ñu tal suñu bopp bopp yal yàlla may ñu am dégg-dégg ak seetlu ak ràññee waaye xelu sénégalais dafa gaaw a fàtte dama ni leen billaahi wa kitaabihi 2000 ak léegi li fi xew ak a bari am na ñoo xam ni fekk leen fa ñu doon wax rek nga jël leen yeew ba ñu dëgër nga yóbbu ba ca rëbës nga tëj leen fa ni ràpp bàyyi leen fa moo doon jaadu ndax def lu ñuy weng nit ñi fàtteeguñ ko nga ñëwaat di wax yoo xam ni c'est du jamais bu kenn jëmale sama wax nag fenn fu ma ko jëmalewul ñoom ñëpp laay wax ndi xëy ndax rek si say neuf ngir yàlla nañ ñu dimbale ñun tal nañu leneen nañ ñu dimbale ngir yàlla ak yonent bi fi ñu doon yaakaar sax léegi fu nekk ngay tàkk Mali gis ngeen na mu mel bu yàggul lañu def la ñu def indi seen président bu bees def seen ay élection fu mu mujj fépp ya ba léegi ñu nga fa ne woon nañ jàmm dikkati na waaye ñaata la ñu rey démb ak bërki démb kenn xamul nu mu toll feneen noonu feneen noonu feneen ñu bëgg ni senegal jàmm rek a fi am te du ñu dox jàmm du ñu wax jàmm du ñu yéenante jàmm fu jàmm di amee mënul nekk nañu delloo ci xel yi kenn ku nekk yéene sa bopp li nga yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp waaye jàpp ba sell ni allahu akbar Mansour jóge fële di ñëw nga jóg akolaat ko gauche akolaat ko droite maam as noonu alpha noonu mulaay noonu te mu wóor la ni sa xol bi li ci nekk gëmoo ko nit ñi nga bëgg rek ñu wax ni ak rafet bi ñuy def nii jaru ko yal yàlla dimbale ba ñu yegg foofu ba nga xam ni képp koo gis muy dem dinga nga ko yéene ci yiw yéenewul sa bopp yal na ko yàlla def mu mel ne itam sëriñ Sidi Ahmed bii toog ñii ngeen fi gis ñu ñëw ñépp jikkoo ma tax ñu wuy ko ndax ñun ñii fi daje ñépp ñu nga jóge Tiwaawan amoon xew-xew boo xam ni moom sax ci xàmmeem ak ràññeem ku ci ñëwul woon ci ñun itam du la ko jàppe ndax xam rekk na yëf ya tollu waaye boo gisee si nag kenn ku nekk ni dafay ñëw ak la muy guddi guddi sa jikkoo tax boo ko lebalul woon nit ñi du deme nii boo ko sequl woon ak sa bokki bopp yi du deme nii kon ndekete nit ki la sa maam Cheikh Al daan wax radiyallahu taala anhu ni yàlla may àjjanay biir ak àjjanay biti am na solo al mar'u qalilun bi nafsihi kathirun bi ixwaani juboo ba juboo jeex juboog say bokk ci dàq kon si ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax a baax di ndokkee soxna Zeynabu sama cere baasi ak sama cere mbuum ma nag gëj naa ñëw waaye ñu ngi leen di ñaanal yàlla itam yal na yàlla defal leen jàmm ci barke yonent bi salaay sallam defal ko mbooloo yi nga àndal Sidi Ahmed defal ko ñi lay jàppale ci liggéey bi defal ko waa daara ji ñoom mañ ak moom carton rouge laa leen di jox xaw ma ani mañang mañang mi ngi fi mi ngi fi dafa génn carton rouge laa koy jox yow moom nag laa koy jox nga jox ko ko yow <laughs> waaye ñu ngi leen di gërëm ci taxawaay yi ngeen taxawoo Sidi Ahmed fa tabaarakallaahu ndax ñun ngeen ci wutu ndax kat nee nañu genn golo gudd na waaye lu ca dal borom yëg ko kon su Sidi wéetul yéen a fi nekk moo tax yal na yàlla jàppale leen ci barke yonent bi salaay salaam ma yëg ni dafa mel na bokk na ci li ñu tudde guddi gi seexal taw mi Mouhamadul Mansour boroom daara yi fi jóge bu yàggul yal na yàlla yokk leeram Sénégal du ko fàtte mukk ci mbaaxam moom sëriñ Mansour mënuma waat ni ñi fi nekk ñépp seq naa ñoom teraanga ci tànt bi mënuma ko waat waaye mën naa waat ni ku fa yeggoon it dina la teral ci bi muy dund ndax mbaaxama demee noonu duñu ko fàtte mukk Sénégal du ko fàtte mukk xadara bi du ko fàtte mukk waaye Sénégal itam du ko fàtte mukk ndax wax dëgg yàlla def na fi loo xam ni ba dunay tukki nit ñi di ko fàttaliku ndax li mu fi tabax ci ay nit defar leen waxuma dof de déedéet waxuma ay kër yu rafet de déedéet ñun suñu mission defar nit la du benn fexe ba nit nite moom la Cheikh Al Hadj di def ba tey jii su julli jotoon léegi ñu ni ma continuer di wax njabootu El Hadj Malick yëpp jóg jàpp julli ñi ci amul njàpp sax daf may bett. yàlla na la fi yàlla yàggal yow tamit Sidi Ahmed ñu ngi lay ndokkeel bu baax di ndokkeel Ousmane usmaan ani moom kafe yi ma doon yéene usu kafe yi jeex na de te koor gaa ngi jub si j'espère que dina ñëw bientôt incha allah <laughs> si Malick ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax di am nag yóbbante yoo xam ne Sidi Ahmed bii. moo ñu wax nañ ko ko jotalal suñu sët soxna Asi di jarbaatam moom di doomam nee na Asi sa pap Sidi sa nijaay nee na li muy def rek mooy bàyyi la yàlla yàlla mi am fay yal na yàlla fay ndax xolam sedd na trop ci yow sedd na ci ñëpp waaye nee na wax dëgg yàlla yow il faut ñu defal la mention spéciale ci rek taxawaay yi fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina te nit nit noon noonu rek moo war a am ci ay bokk ci ay wëllëri ci ay soppe ki nga bokkalul dara bokk ak moom diine sax yàlla nee na taxawu ko ba mu jàpp ni yaay léppam te kër gi nii rek la war a demee kon nag sa papa sa nijaay Sidi Ahmed nee na mi ngi lay gërëm di la sant waaye ñun itam ñu ngi lay gërëm si Malick di la sant ci noonu ndax nit ki amul lu dul kilifaam kon bu sa papa xewlee nga xam ni yaa xewle nga bàyyi sa lépp ñëw fi nekk ceeg moom ba waxtu wi wax dëgg yàlla ñu itam ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla gën a jàppale yow ak say mag ak say rakk ci barke yonent bi salaay sallam bàyyi leen ak sama soppe bii di maam As wax dëgg yàlla moom macha allah dama ko sopp ndax lu baree bare toujours ma wax ko ko doomu ndare gi mariage de couleur yi yàgg na yàgg na saat ndax dafa am suñu benn sama benn nijaay boo xam ni moom laa bokk ak moom séq kook moom ñu koy wax Boubacar Ba ñoom mu lay xam nañu ko ñoom Alpha xam nañ ko sama nijaay la waaye ku feex la xaritu maam As la nag ñoo nekkandoo woon ex en Provence xam naa ah, wax dëgg yàlla euh, maam As booba ba léegi ñuy ñuy euh, gëj gisee yenn saa yi waaye fu ñu gisante rek mu mel na démb la ñu teqalikoo ndax cofeel gu ma am ci moom moom itam ak mbooleem koo xam ni euh, njabootu Cheikh Al Hadj Malick ga yàlla may ñu yegg ci jëflanteek ñoom foo xam ni ndax lépp Maodo la lépp Cheikh Al Hadj Malick yal nañ yàlla may ba képp ku ñu ci naan jàkk rek di la jox loxo yëg ni El Hadj mu taxaw nga ci suñu kanam loolu rek moo jaral ñaan yal nañ ko yàlla defal ci barke yonent bi ndax lañu bëgg yépp ci yàlla ci moom lañ ko war a mën a jaare ak ay njabootam kon bu ñu ko fi bëggee bàyyi bàyyi fi njabootam fan lañ koy jële léegi léeg nga dégg mag mu taxaw fale ni la diw rek kama ñor ku dul moom ñoru ma ma ni leen ah loolu dafa xew di ñu ni tam alaaji Malick rek a ñu doy di lu ci nit man ah. yàlla boo am kilifa goo xam ne nag dafa weex tàll ne perkaal bii zéro faute moo tax ma ni olof njaay nee na bu jàmm yendoo ci pénc ma nga fa xam dëgg gu mu waxul foofu laa yemale sama waxtaan jox ñoom maam Alpha ci ndigalu suñu kilifa gi toog muy Mouhamadul Mansour sanq dafa ñëw nii ma toog tuuti rek bëgg a dem ma ni ko sëñ bi doo dem kat ñun yow lañ fi doon wut rek ñëw nga. léegi nag comme man si Malick dama xaw a jagadi yàlla xam na ko bi may ñëw tuuti ma daanu fii ndax garab yi ma waroon jël jëluma ko samay rakk ñëw nañu si Malick dama lay ñaan nga yeewi ma rek bàyyi la ak ñoom man ma daw dem jëli sama garab gële. di ñaanal yàlla mbokk yi fi teew yépp yal yàlla def jàmm defal leen ko ci barke yonent bi Sénégal ku ne xam na ni yëf yi metti na képp kuy boroom kër ak ku amul kër sax ñi amul kër sax xam nañu ni yëf yi tax xaw na saf ah su ko defee luy pexe nag luy pexe ah métti na mustafaa métti na man xam naa ci dara borom kër laa wax naa leen damay dem jaba ba tey jaba nag ñi dëkk ndara koy wax maam as xam na luy jaba ñi ci des marché la ñuy wax wante yàlla xam na ni ceeb bi xam naa lu muy jar parfumé beeg mburu mi xam naa lu muy jar léegi ñu ngi naan wàññi nañ ci nangam nangam waaye bu ñu ko wàññee it poids bi wàññeeku wàññeekuwaat 150 la ñu wax ni léegi ca la tollu kilo sucre lu muy jar xam naa ko électricité bi macha allah barki démb indil nañ ma facture boo xam ni salé te boo waxee ñu wax ni dara te dañuy estimer rek di teg lu ko gën a metti kon dëkk bi metti na c'est la vérité bu ko defee nag ñu may ñu tuuti bàyyi politique bu bari bi lenn rek laa bëgg ñu def ko muy pouvoir di opposition yii rek a fi nekk may bëgg a wax génn ko benn bu jëkk bi dafa am ku yàlla ni mooy yore réew mi ba teg ko ci loxoom ñaata at la kenn xamul yàlla rek xam parce que ñun loolu ñuy defe ñoom ci seen ay calcul seen ay ñun ñu xalaate noonu gëm nañu ni daal nguur yàlla koy joxe jox na ko ay nit kañ la cay pare allahu alam xamuñu ko wax dëgg yàlla lenn rek lañu mën a xam ni bu ñu ca góorloo mën nañu fi yàgg mooy askan wi ak seeni soxla parce que sénégalais yi kenn dofatul léegi ñëpp yeewu nañu su ko defee nag ñooñu ñu dénk réew moomule nañu def seen kem kàttan dëgg la àdduna fépp la méttee waaye boog nga def lu tax xelu nit ñi dal sénégalais bu lekkee ba suur rekk naan attaayaam la cay des bareetul loo wax rek jubóog moom mais bu ñu demee nag ba wax dëgg yàlla te li ma leen di wax lu ñu xam lañu lu ñu xam la ndax ñun nekkuñu rek ci biir Sénégal nii rek ñu naan doomu sëriñ si dañuy noos ak kan moo tal noos ñun taluñu ko koo xam ni boo tëddee guddi doon nelaw nooy noose koo xam ni boo tiimee ceeb yaa ngi xalaat nit ñi nga xam ni ñu ngi xiif te amuñu lu ñu lekk nooy nooy nooy nooy nooy noose ñun foofu la ñu toll xamuloo moo tax réew mi fawuñu ciy wax suñu xalaat ñi fi nekk di ci wax gënuñu ñu cee yeey ñoom bërki démb rek lañu door ñun nag dañ ko judduwaale faaw ñuy wax su ko defee ki fi nekk tey sa yàlla teg ko fi mu yokk góor góorlu te jéem a jublu lu mu gën a mën ci soxla askan wi ñi ci des te nekk ci opposition bi dëgg la mën nañu opposé wu waaye wax bu ñaaw bi jaru ko ñekk bi jaru ko ñànk bi jaru ko ndax ku ci doxaloon yoon peuple bi duñ la fi jëlee bu ñu demee ba xool ni yow lañu bëggoon mënoo ko nga bëgg fi ñëw pour waxaat leneen lu ñu la gëmee da ngay sonal sa bopp wax pour yàq rek ak taal réew mi ku ko fi def nañ la teg ci yoon waaye nit bu lekkatul kay bàyyi ko sagoom nag su ko defee nag ñi nga xam ni dañuy opposé wu ay opposition lañu nañ ko teg ci yoon waxante lu ñaaw lu ñaaw xaju fi nañu wax lu rafet kenn ku ci nekk lay sa chance nee naa leen kenn mënu ci dara qulillahumma malikal mulki tuutil mulka man tashaau wa tanziu l mulka mimman tashaau wa tuizzu man tashaau wa tuzillu man tashaau bi yadika al xayr innaka ala kulli shay'in qadir yàlla lay soob mu jaarale ko ci peuple bi ñu woteel la rek nga jàll dem sa yoon waaye ku jàpp ni sa sëriñ lay fal xamu loolu xew de nangami million yi sénégalais wooteel la nga teggi fa ñëpp ñi ay diwooma wooteel delloo woo njukkal sénégalais yi yooyu yëpp dafa jar di bàyyi xel waaye waa ala kulli xaal ñuy ñaan yàlla daal réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ñun jàmm rek lañu bëgg jàmm rek la ñuy dox itam suba guddi waxtu wu ngeen ñu gise ci jàmm rek la ñuy dox ndax góor gi daan na wax nii def bagage ci gaal nekk ci gaal gi ak géej gi nee na soxlawul ngay ñaan sa bagage mucc ñaanal gaal gi mucc rek bu muccee rek lépp mucc waaye musiba mooy yéene bu ñëwee yow looy nekkee kenn daf ko xam kon kay ku yabu di yéene jàmm rek. waaye yéene boo xam ne yéene dëgg la ndax jàpp ba sell ànd ak nit ca jàkka ja imaam taxaw ni allahu akbar nga ni allahu akbar ngeen ànd ba ni asalaamu aleykum gestu mu wóor la ni ki la féete nii yéene woo ko jàmm fii yéene woo fi jàmm nooy amee jàmm yow mënul nekk kon yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci njaboot gi yal na yàlla indi dund bu nëtax bu naat bu yomb ci barke yonent bi ñu ngi seen tuwaat koor gi yal na ñu bokk ci xaaj bi koy wor ren ci barke yonent bi ku mu fekk ngay dund ba léegi yan la yàlla may nga bokk ko ak jullit ñi ñu defandoo ko ñun ñëpp te yàlla yombal jullit ñi ak borom kër yeeg borom dépense yi lépp luñ ci bëgg yàlla na ko yàlla may mottali ci barki yonent bi ñu ngi dëgg malaat itam nawet bi yàlla na ñëw làmb réew mi yëpp ba mu daj bu làmbee réew mi ba mu daj itam mu nekk ndoxum jàmm ndax kat gis ngeen dëkk bii lu mu tuddati eh, ci Union soviétique la foog naa mu laay Euh, fii fii inondation bi am bu yàggul. déedéet du Ukraine. Ukraine moo am moo am moom la Russie bi saay-saay bi la rek Poutine di def lu ko neex rek moom itam déedéet du Turquie de ah Bosnie Bosnie ah Bosnie foog naa foofu la de ku ne gis na li xew ci télévision yi fan yi dafa nekk ci ndox moo tax euh, ñaan ndox mu bare te ñaanuloo la koy téye it bu ëppee ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am benn bés saxaaba yi dem fa di jooytu ni ko dañoo bëgg ku ñu baaw naanal suñu borom yonent bi ni leen aha ñu ni waaw mu waxee waxtu ñu ba mu jotee ñëpp génn ànd ak moom sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla mayoon loo xam ni dootu ko may nit ba ba muy dee léeg-léeg nga dégg ñuy wax ci rajo loo xam ni dañuy nax seen bopp di dem rek waaye fii kenn du fi sayyidina Muhammad kenn du fi yonent bi laa wax ku ñu ko tëkkaleel dañ lay nax nañu delloo ci xel yi Sénégal dem nañoo dem a dem ba kenn ñemeetu la wax sax li nga xalaat loo wax ñu ni a tax ngay wax ku ko ni moom moo tax ñuy wax xam nga pël ba waa ji daf ko romb ak ay nagam pël bi dafa romb waa ak ay nagam boobu timis a ngi bëgg a jot nettali naa ko jeg saa bu yàggul ñuy wax ba mu yàgg rek jàmmasante ba timis di waa ji jot mu ni ko ah pël bi ni ko xaaral ma ñëw dem sax léegi mi ngi guddi de kaara ma ñëw dem mu ni ko mënoo toog tuuti rek mu ni ko ah bàyyil ma dem rek mu ni ko loo fi ragal fii sàcc amu fi de mu ni ko lu <laughs> fi indi tur bi waaye fii bu la yàlla mayee nag kilifa goo xam ni la mu am yépp ba nit ñi di ko naw la mu am yépp ba nit ñi di ko naw moom gisu ci boppam benn yoon xoolal xoolal Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala anhu fala budda min shakwa ila llahi kurbati fama liya gayra allahi jaabiru kasrati wa qaraiya baabal gayri ya rabbi lam yufit lidaka sarafna naxwa baabika wijhati waaye xoolal la muy waxanteeg boroomam ilayka bi doofin waftiqaarin wa faaqatin li taxfira lii yaa rabbi min kulli zallati fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waaqifan dalilan xaqiiran mustagiitan li shiddati ak xoolal tamawajal baxru baxru dambi yaa thiqati wa innani rabbi xiftu lgarqa yallaahu wa ma safinatu turja gayra rahmatika al uzma al amimati kulla al xalqi yallaahu mu dan na satan bi maa iafika arju xasla aqdaari dem ba mu yàgg mu ni yàlla euh, law kaana baabuka laa yaatihi du ithamin fa maa duayta xafuran kulla awzaari ba mu yàgg mu ni waaw ndax li ma wax sax tegginu na sama digganteeg sama borom xaatabtu rabbi xitaaban laa yaliqu bina irham li abdin min al aathaami xayaari wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw taw bi ma doon wax ci yonent bi ma yeggale ko foofu laay tëje ñu ni ko dañu bëgg nga baaw naan yonent bi ñu leen ay ayca ñu àgg mu kàbbar gaa yi commencé waaye laata yëfee di pare tawaleen fa dàqe boo xam ni ñu daw nag taw bi ëpp doole bala ñu bàyyi woon ci dund commencé sax di yàqu nag ñu dawaat ci sang bi ni ko ah te nga wax Euh, kilifa gi ni kokat yi fii mi ngi bëgg ëpp ëppati mu ne naa lu ma ci xam daal di delluwaat ñaanaat yàlla mayaat ko ko taw bi ni tekk moom rek a ko fi mënoon benn nitu yàlla bu toogee ci nen du toj ndax du wóolu pexem yàlla yàlla dara dafa feesul bëtam bokkul ak kenn dara jalla jalaaluhu wa azza kamaalu nañu delloo ci xel yi waxuñu kenn amul cër yàlla may na ay cër yu dul jeex waaye dama ni la yàlla moom nañu ko fa bàyyi nee na alkibriya urida yi yàlla nee na mbalaan mu ñuy wax rëy nee na li ci usine bi defaroon maa ubbi usine ba maa moom usine ba ña fa nekk maa leen fa teg commande ba ma fa defoon it jeex na lépp maa ko sol ku ma ci fekk ma génn la ci biti nañ ci bàyyi xel su ko defee ñu ñaanal mbokk yi fi teew yépp yal yàlla may ñu ñu teewaat ko ne gën a déwén ñaanal xale yi nga xam ne ñu ngi toll ci bëgg sëy di góor comme di jigéen yal yàlla indi jëkkër yu baax waaye ñoom itam ñu ñaan leen ñu bàyyi daqaate bi dafa xew nag ah, waaw ndax xam nga léeg-léeg ñaan yàlla dépense ba mu ñëw may la ko mu yem ci keccax nga ni duma lekk keccax am na leneen loo bëgg Hmm? nit nag mën na xeeb wala yàlla may ko mu jàpp ni yàlla may ko waaye moo xoolul boppam la ko yàlla jox la xeeb kon xale yi ñoom itam jigéen ñi nañu bàyyi daqaate bi góor ñi it bàyyi dige lu ñu mënul nag parce que bëgg ndaw si rek ba tax lu ñu la wax nga wokk bopp ni ko a ah, kay ah moom itam bu sëy ba amee ñaari fan ñett mu gis ni la nga doon wax dara amu ca mu takki bagaasam ñi toll ci wàllu liggéey it yal na leen yàlla jàppale ba ñu am liggéey am fu ñu daane seen doole xale yi dara taxul ñuy daw ndeysaan su suba ngoon guddeeg bëccëg kenn ku nekk da nga bëgg rek tekki ak loo yóbbu ci sa wayjur loolu rek a leen tax di daw man dama jàpp ni agresseur bi nga xam ni dafa agressé sax ci gor ci doomu gor am na ci loo xam ne xëy na nag loolu c'est pas une solution ga agression bi waaye mbon taxul mu di ko def jaaxlee tax ndax itam nekk cim réew juddoo fa màgge fa weer dee nga bëgg ñetti saabu wala ñetti tubay yoo jënd mënoo ko am ñuy tudd ay centaine de milliards ni diw am na ko te mu wóor la ni liggéeyu ko ci ndey donn ko ci ndey donn ko ci baay ça fait mal ba pare romb la nag di dox seen soxla te sa alal la ñuy dunde lu ko gën a metti moo tax dama ni xale yi nañu delloo ci seen xel nag am ful la ndax mbéjum gémmiñ boroom a ko mën a fajal boppam man bala ma lay nekkal ci mbedd mi di yuuxu ma xam fi nga ma jëme fan la waaye boo ma soxlaa ñëw lu ma jàppoon bàyyi ko boo faloo pare ca man boo fa jaaraatee ma am fu ma jaar ak yow donc xale yi nañu am gis-gis te ba te fàtte bu bari bi waxuñu kenn fàttaliku lu ñaaw nag lu ñaaw kenn du ko fàttaliku waxuma loolu waaye dama ni diggante boobaak léegi bi Sénégal des Sénégal ak léegi xale yu ci baree bare 2000 ak léegi macha allah ci la ñu judd xëy na majeur nañu wala li leen tee majeur bariwul waaye nax bi laa bëgg ñu xool ko xàmmee ko ndax damay gis xale yi wax dëgg yàlla fu homme politique jóge wala lu yëngatu ci wàll woowu dañuy dawa dawa dawa dawa daw bay bëgga a dee te lañ leen di jox xam nga ñaata la benn mille francs jox la nga lekk ñu utal la njëg njaay dugal la ci soo paree rek dem yàlla loolu nit ëpp na loolu nañu delloo ci xel yi dang-dangi suba ba ngoon jot ñu yóbbu la jox la benn sandwich ak ndox moo naan ndegam di nga ko am sax boo ca jógee ñu yabat yabaat la ci kaar bi nga delluwaat loo fay nekke nelaw ak xandoor rek te naan yàlla yàlla defar yëf yi dara du sotti kon nañu delloo ci xel yi xale yi nañu delloo ci xel yi te bañ a découragé nañu jàpp mu dëgër te xam ni yàllaa fi nekk te du fi jóg ba mukk te képp ku sa soxla faju yàlla la ko fajal yal yàlla fajal leen soxla yi ci barke yonent bi te ngeen bokk kook seen wayjur yi yal ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad mu mel na itam jamono bu dee dox nga am mbokk mu mel na ki ngeen am ki leen yàlla booleel muy Serigne Sidi Ahmed xam naa ni du laaj du sonal kenn moom xam naa ko ci moom dafa am nag taalibe yoo xam ni ndegam sëñ naa ko wax dañoo gàtt xel parce que loo def ñu wokk bokk rek bàyyi mu dem te tey jii bu ñu ni woon nañ joxe nangam walla ku joxe nangam nangam nangam wax dina leen jaral ñu def ca lu ne carte yu tuuti yi ngeen di gis nii dañ koy wecceeku ñuy ñaan bokk yi képp ku mën jënd fukki carte ay waay jëndal fukki carte waay boo ko doyewul dara nga seet ku amul nga jëndal ko ko nga jël sa benn yow ñu def ko ndax lii ku jàpp ni ci nii rek la fiy jóge ku ne dem déedéet daara ji dafa luye chaise yi daara ji dafa luye bâche yi certainement lii ngeen di dégg ñu di ko waxee muy micro yéeg yëpp rek baafal yéeg yépp ay location la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni daara yi daf koy soxla comme nag Sidi Ahmed mënul laaj mënul ñaante lu mu yore joxe ko toog moom ñu am xalaatu def loo xam ni lañu cay jële ca keesu daara jële jëmaat te yéen xam ngeen ni yàlla boo ko lebalee ker mu fay la guddi man da alladi yuqridu allaha qardan xasanan fa yudaacifuhu lahu wa loolu la yàlla wax yaakaar naa mës naa ko fa nettali waaja dafa toog ci buntu këram lal piliyaanam soxna si solu mu dégg ko xam ni ci moom la jëm si war a dem marché amul lu dul fukki dërëm ci jamono yooyu naka la soxna si génn di pare ñëw am ku fa jaar ni kuy defal yàlla waay kuy lebal yàlla waay borom kër gi jaaxle amul amul lu dul fukki dërëm te moom la na naroon joxe pour wan la mag ñi seen ngëm fi mu toll waaye mu gëm ni yàlla du waxantu nee na boo ko lebalee benn mu jox la fukk mu ni naa ko jégg rek joxe ko daal ni ah comme waa ji nee na kuy defal yàlla la wax kuy lebal yàlla daal di yëkkati fukki dërëm ni ko am waay góor gu baax soxna si génn ni ko nijaay kon maa ngi dem bon mu ni ko ah man kat dafa am lu xew mu ni ko lu xew mu ni ko dafa am ku fi jaar kat naan koy lebal yàlla mu ni ko yow daal yaa yabaate yow sa nelaw doyul ngay mu ni ko waaw mais li ma wax a tax nañ toog xaar yàlla rek mu ni ko xaar yàlla waa toogal foofu ba xam ndax yàllaa lay indil dépensé wala déet waaw maa ngi dem ci biir kër gi xam nga jigéen ñi rek dem toog tuuti am ku nuyoo ci buntu kër gi mu dégg ko ni góor gi fey ko xam na ni boroom këram la moo fa nekk am ku muy nuyool mu ne ko diw laaj mu ni ko maa ngi nii de mu ne ko yow la mu ne ko waaw mu ne ko man de dama tukki woon bay door a xam nga dëkk sàngam mu ne ko waaw mu ne ko falaa laa jóge mu ne ko amoo fa wëllëre bu ñuy wax diw mu ni ko ah mu ne ko nee na mi ngi lay nuyu mu ne ko naka la def mu ni ko mi ngi fa ñu waxtaan ba muy dem daal di ci jamono yooyu laa lay wax yàgg na daal di yëkkati juróom-ñeent fukk jox ko góor gi ni ko moo ni woon nag su ma ñëwee naa la ko jox nee na mi ngi la koy ziyaara te di feddali kóllëre góor ga ni dënn ba mu yàgg ni ko jox ma sama fukki dërëm manqué na fukki dërëm mu ni ko ay góor gi daal man sama coono bi ma daj jóge fi ma jóge ñëw indi la sama yëbbante da ma wóoluwul mu ni ko ah, ah ah du ñàkk a wóolu teg maa tegal sama fukki dërëm rek moo gën a di moo gën di mu ni ko lu xew mu ni ko teg ci sama fukki dërëm rek ndax sànq sama soxna dafa génn amewuma lu dul fukki dërëm waroon ko ko jox am ku ñëw ma jox ko ko te yàlla laa ko lebaloon te yàlla nee boo ko joxee benn mu defal la ko fukk mhm. sama fukk yooyu kon téeméer la mhm. waa ji wokk bopp ni ko ay mhm. téeméer la ma joxoon de fukki dërëm yi dama cooy ko mu ni ko waaw kay nii lay mën a demee kon man da alladi yuqridu llaha qardan xasanan waaye lebal nag dafay fekk nga wóolu mag buur bu toll ne yàlla lu mu la moom lay def waaye leble ba pare di sikki sàkka ah boo gisul sa payit yow la nag ba tax na kon ñu ngi ñaan mbokk yi comme maam alfaa ngi fi comme Pape Moulaye ngi fi ñoom itam ñu continuer rek seet ba xam lu fi nit ñi mën a joxe lu ñu fi mën a jënd ci carte yi ñaata ngeen koy wecc ko ah. 1000 francs kon kenn ku nekk ku ci mën 1000 francs mu génne ku mën a jënd leneen lu ëpp itam te nga def ko te yàlla tax ci daara ji nga def ko. wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ndigalu sëriñ Habib si. ñu nuyu ñëpp. di ziyaara ñëpp. di ziyaara ñëpp. baalu xaq ñépp di baalu ah, ni ko sëñ Mansour daan waxee. daan waxee. ndigal. ndigal. soo mënee defal soo mënee defal. soo defal. moo ñu dal tey moo ñu waaye li fi sëriñ bi sotti. ak ñi jiitu woon. ak ñi jiitu woon. doy na sëkk doy na sëkk. nee na sëriñ bi jox nañu bind bu rëy. waxtaanam yëpp. waxtaanam yëpp. génnul alquranul karim génnul alquranul karim. génnul waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bi muy waxtaan sànq. muy waxtaan sànq. fu mu ci toll rek. fu mu ci toll. aayaat yiy dëggal wax dëggal wax ji. yi. dafay njëkkante ci xel yi. bi muy wax ci wàllu kiy julli ba sëlmal. bi muy wax ci wàllu kiy julli ba sëlmal. wàllu ndeyjoor ak càmmoñ. wàllu ndeyjoor ak càmmoñ. wàllu wu ne. wàllu wu ne. mu ni ka fa féete. mu ni ka fa féete. asalaamualeykum. asalaamualeykum. ñaanal ñoo ñu jàmm. fekk la làmmiñ ba di wax. fekk la dëppoowul ak la ci xol wa. mu ni umpul yàlla. ñu ni dëgg la. ñu dëgg la. ndax yàlla wax na ci alquran. xul in tuxfu maa fi sudurikum aw tubduuhu yaalamuhumullah wa yaalamu maa fi samaawaati wa maa fi mu doy sëkk mu teg ca wa axfaa mooy la nga xam ni malaaka yi sax xamuñu mooy la nga xam nit ka koy nëbb. kon kon. point boobu rek point boobu rek. doy na sëkk doy ndax nag yëngatu yi lu mu bari bari. ndax nag yëngatu xol yi laabul te xol yi laabul. dañuy sonnal suñu bopp. ah sëriñ bi nee na amagum nañ fi cinquante neuf mille ci carte de membre. yi des na ba léegi. ah waaye moom Alpha nee na loolu de moom des na ba tey. bañ dagg waxtaanam. ah Serigne Habib nee na day bañ a dagg waxtaanam. waaw waaw wallaahi. fa tabaarakallaahu. yal na ñu yàlla dimbali. yal dimbali ci loolu. ci xol yi laab yawma laa yanfau yawma laa yanfau maalun wala banuuna illaa man ata allaha bi qalbin salim 1992 1992 Chérif jërëjëf Chérif jërëjëf. ànd naa ak Serigne Habib mi. ànd naa ak Serigne Habib mi toog. ak ak Yaay Sophie. ak Yaay Sophie. dem Téhéran. dem Téhéran. fekk fa sëriñ Maodo Touré. fekk fa sëriñ Maodo Touré. yal na yàlla guddal fanam. yal na yàlla guddal fanam yokk ko wér. mu am téere bu mu ñu jox. mu am téere bu mu jox. mu nekk ñaari ajza. mu nekk ñaari ajza. su ma juumul. nee na su ma juumul. ma nga tudd alqalbu salim. mi ngi tudd téere bi alqalbu salim. sëñ Habib fàttewul li ma. nee na sëñ Habib sëriñ bi nee defe na ne fàttewul li ngay lim lay wax. nee du ko fàtte. nee na du ba mu demee woon. nee na du ko fàtte sëñ Habib nee na ndax yoon ba na mu demee woon. mulaay gi nii seede la ci nee na mulaay gi nii seede la ci woon. suñu pari ne tabaarakallaahu. heureusement mu yem foofu. nee na heureusement mu yem foofu. <laughs> fa tabaarakallaahu. téere boobu soo ko jàngee. nee na téere boobu soo ko jàngee. di nga xam ni di xam ni. ñi mel ni Cheikh El Hadj Omar Fouti. ñi mel ni Cheikh El Hadj Omar Fouti. radiyallahu radiyallahu taala anhu. nga xam ni bind na. nga xam ni bind na. wax ni wax ñi mag ñi. daan nañu laxasu laxasu. lu mat fukki at lu mat fukki at. wala lu ko ëpp wala lu ko ëpp. ngir jàng ngir jàng. nan la sellale nan la ñuy sellale. seen yéene seen yéene. ndax benn jëf. ndax benn jëf. jëf ci jëf yi. su su sellee. su sellee. yàlla nangu ko yàlla nangu mën na daaneel mën na daaneel. setal setal. lépp lu taxoon lépp lu taxoon. kon yàlla nañ ci yàlla dimbali. kon yàlla nañ ci yàlla dimbali. daan naa dégg euh, seen maam Abdou muy wax. nee na daan naa dégg seen maam Abdou di wax ni. léeg-léeg sax daf daan wéet moom rek di ko wax. léeg-léeg sax nee na Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy da daan wéet moom bopp moom kese di ko waxal boppam. wala nga ñëw mu la koy ñaan wala nga ñëw mu la koy ñaan loo. mooy ñaanal leen mooy ñaanal leen ma. ma bëgg ñëpp ma bëgg ñëpp. ak nu nu nit nitoo. sama yoon bañ sama yoon bañ caa nekk. ñaanal leen ma ñaanal leen ma. ma sopp jaamu yàlla ma sopp jaamu yàlla yëpp. ñaanal leen ma ñaanal leen ma. yàlla musal ma yàlla musal ma. waxuma lu ñaaw ci nit. sax wax lu ñaaw ci nit. waaye di ko xalaat waaye di ko xalaat. yàlla musal ma ci yàlla musal ma ci. soo delloo ci mbindam. nee moo tax boo delloo ci mbindam. daa fa fekk daa fa fekk. ay abiyaat ay abiyaat ci xeetu istigfaar ci xeetu istigfaar yu mu daan def. astaghfirullah astaghfirullah mimma jaala mimma jaala fii fikari min addunubi wa ma ata bihi basari wa ma ata bihi basari maa ngi jéggalu yàlla maa ngi jéggalu yàlla man Cheikh Al Hadj Abdou. firi seen wax nag yombul. nee na ñoom mag ñi firi seen wax yombul. am na bis ma koy jàngal benn téere. am na bis nee na mu koy jàngal benn téere. ba am fu ma egsi. ba am fu mu egsi. ma koy laaj. mu koy laaj. mu ni ma mu ni ko. kalaamu lawliyaa ilastu afhamu. kalaamu lawliyaa ilastu afhamu. li annani na ana ana ana wa humu. moom itam la ñuy wax ci ab yaatam. nee na loolu tam lay dellu wax ci ab yaatam ñu jéem koo firi. ñu jéem koo firi. mooy maa ngi jéggalu yàlla. mooy daal li fa alajab du wax mooy maa ngi jéggalu yàlla. ci liy daw ci sama xel. ci liy daw ci sama xel. te mënuma ci dara. te mënuma ci dara. te muy loo xam ni. te loo xam ni. waruma ko xalaat waruma ko xalaat. di jéggalu di jéggalu. sama borom sama borom. ci li sama bët tege. ci li sama bët tege. te muy lu jaaduwul. te lu jaaduwul. ba mu cay tege. te ba mu cay tege. yëguma ko ko teyuma ko teyuma ko. mas naa dégg Baye Alxaaji Ibou Sakho. nee na dé mas na dégg Baye Alxaaji Ibou Sakho. mu xool bu njëkk bi mu ni xool bu njëkk bi. amul bàkkaar amul bàkkaar benn waay bi benn waay bi kon boog kon boog su dee lu la neex su dee lu la neex yàggal ko yàggal ko rek maanaam boo xoolee bu ko teggi waaye nag yàggal ko rek xef baax na waaye nag xef baax na mas naa mas na ànd ak Serigne Maodo ci oto nee na mas na ànd ak Serigne Maodo ci oto boobu nag maa ngi soog a jóge Fass Touré na boobu maa ngi doog a jóge Fass Touré xam nga rek wàcc Dakar ñu nekk ci oto bi ñu nekk ci oto bi booru université. booru université. jëm këram point e. jëm këram point E. ma nekk di xoole xoole bu métti na muy xoole xoole bu métti. bay gëstu bay gëstu. ci njàngaleem ci njàngaleem. mu ne ma alpha. mu ne ma alpha. dañuy gis ñoo xam. dañuy gis ñoo xam ni. dañuy xoole ba. dañuy xoole ba. bay gëstu bay gëstu. <laughs> man lay wax. mu ne ko ah sëñ bi de man lay waxal. <laughs> man loolu laa nee na moom loolu la wax daal. waaye dafa tombe nee na waaye dafa tombe xam naa ci xam naa nee na xam na ci Cheikh Al Hadj Malick si Maodo kersa boo xam ni. ak yar boo xam ni. du man maa taxoon du moom moo taxoon muy wax. waaye moom moo ko déggee noonu. te boobu la daloon góoru Saalum Saalum nga ma ma dal. nee na te boobu la daroon góoru Saalum Saalum bee ma dal. dégg naa dafa nekk ca dëkk ba. nee na dafa nekk ca dëkk ba. dégg Dakar de Honda yu rafet a fa wàcc. Dakar de Honda yu rafet ñoo fa wàcc. mu ñëw ak si waxtu midi. Colobane mu ñëw ak si waxtu midi Colobane. yàlla dogal mu dox. yàlla dox mu yàlla dogal mu dox. ba ci rond-point bi ba ci rond bi. mu jàdd boori Kennedy. mu jàdd boori Kennedy. te santeeg xale yu jigéen yi wàcc. te xale yu jigéen yi di wàcc. léeg mu dox ba ci kenn. léeg mu dox ba ci kenn. ni ko sama doom. ni yow xanaa ci Honda yu bees yi nga. nee na xamul woon luy Onda. ñun la ñu toll nee na ñun itam foofu la ñu tollal rek. boobu fekk na faas boobu fekk na faas. suñ xam yi xam na li muy wax. soo jigéen boo xoolee jigéen sax. ñu duma la ñu duma la. Mm-hmm. ñu ñëw nag. ñu ñëw nag. fekk macha allah fekk allah. am xeeti pantalon yu bees am xeeti ay pantalon yu bees. xeetu jupe ay sot jupe. ñuy gëstu rek nee na ñun daal ñuy gëstu rek. ba xaw a yor loos ba xaw a sax yor loos buy metti waaye sant yàlla nee na waaye nag sant yàlla. waaye loolu lépp nag. waaye loolu yëpp nag. soo gisee ñu yegg ci soo gisee ñu yegg mooy wane ni. mooy wane ni. yooyu yëpp ay njuum tey cër la yëpp ay njuum tey la. waaye cër bi ci ëpp doole. waaye cër bi ci ëpp doole. ni ko imaam Ghazali binde ni ko imaam Ghazali binde. mag ñi xam yàlla. mag ñi xam yàlla. bindee ko bindee ko. xame ko noonu noonu. mooy xol mooy xol. mooy xol bi mooy xol bi. was judd waqtarib. was judd waqtarib. ba ko yàlla di wax ba ko yàlla di wax. du sujjootu jë kese nee na nekkul sujjootu jë kese. xol bu sujjoot ca xol bu sujjoot tam ci la bokk. xol bu sujjoot. xol bu sujjoot. moo tënk waxtaanu Serigne Habib moo tënk waxtaanu Serigne Habib. mooy li yàlla dogal mooy li yàlla dogal nga nangu ko. nattu yi nga muñ ko nattu yi nga muñ ko. ñaan ko mu teggil la ko. nga ñaan mu teggil la ko. te fas yéene. te fas yéene. tënku ci mbaax. tënku ci mbaax. ba keroog nga koy fekki keroog nga koy fekki. yal nañu ko yàlla defal yal nañu ko yàlla defal. dëkke nag istigfaar. dëkke nag istigfaar. donte ci làmmiñ bi la yem. donte ci làmmiñ bi la yem. su yàggee rek. su yàggee. connexion am. connexion am. ak xol bi ak xol bi. Mm. nitu yàlla yi bind nañ ko. nitu yàlla yi bind nañ ko. soo demee ci alxikam. nee na boo demee ci alxikam. bu ibnu Ataillah. bu ibni bu ibnu Ataillah. daa ko fa fekk di nga fa fekk loolu. nee na ngay tudd yàlla ci làmmiñ nee tudd yàlla ci làmmiñ bi. ak càggante. ak càggante. moo gën bañ koo tudd. moo gën sax bañ koo tudd. su yàggee rek su yàggee. aaya sa kaw. aaya bi diriku ci sa kaw. wallazina jaahadu. wallazina jaahadu. fiina fiina. lanahdiyannahum lanahdiyannahum. subulana subulana. waxul sabiilana waxul sabiilana. subul la wax subul la wax. yoon na mu def ko jamu kon def ci tudd yoon yu bari. yàlla xàll ko yàlla xàll ko. ubbil la ko ubbil la ko. di ca jaarale di ca jaarale. ay fuyudaatam ay fuyudaatam muy muy sottiku. ci ci sa xol. ak sa basiira. ak ci sa basiira. fa innaha. fa innaha. laa taamal absaaru laa taamal absaaru. walaakin walaakin. taamal taamal. quluubu llati quluubu llati. fi suduuri fi suduuri. yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal. loolu nag li ñu koy may. loolu nag li ñu koy may. mooy raxas xol bi mooy raxas xol bi. imaam Ghazali nee na imaam Ghazali nee na. soo jëlee seetu. soo jëlee seetu. bàyyi ba 13h. bàyyi ba 13h. nga jël ñuulitu kaddiir. nga jël ñuulitu kaddiir. diw ko ci seetu bi. diw ko ci seetu bi. ndax rayon jant bi dina ci demati. ndax rayon jant bi dina ci demati. du ci dem du ci dem. nee na loolu mooy xol bu tilim. nee na loolu mooy xol bu tilim. loo sikkar sikkar. loo sikkar sikkar sikkar. jàng jàng alquran. loo jàng jàng te xol bi setul te xol bi setul. dina doy waar dina doy waar. moo tax moo tax. li Serigne Habib wax sànq. li Serigne Habib wax sànq. ni mag ñi ni mag ñi. defar nit defar nit. moo leen tax a moo leen tax a jóg. muy wax bu am solo muy wax nag bu am solo. soo demee tey États-Unis boo demee tey États-Unis ni ñu avancé ni ñu avancé. foo gestu foo gestu. rawatina New York rawatina New gis ay gratte gis ay gratte-ciel. di xool tiin di xool. ba fa sa bët fa sa bët yem. ak yeneen i xeeti technologie. ak yeneen xeeti technologie. ci li mu mën a doon ci lu mu mënti doon. waaye teewul waaye teewul. xol yu feebar yi xol yu feebar ya tax na tax na. chaque minute chaque minute. ñu rey nit ñu rey nit. dëgg la jël bakkanam jël bakkanam. chaque minute chaque minute. ñu violé jigéen ñu violé jigéen. chaque minute chaque minute. ñu sàcc nit ñu sàcc nit. këf alalam këf alalam. kon différence baa nga kon nee na différence baa ngi noonu. kon boog kon boog li sallallahu alayhi wa sallam waxoon li sallallahu alayhi wa sallam na lumb am nekk ci nit bu ci nit su yéwénee su yéwénee léppam yéwén léppam yéwén su yàqoo su yàqoo léppam yàqu léppam nattuwaay bi nag soriwul nattuwaay bi nag soriwul ci sama classe bi nee na ci man sama kalaas man ak man wax man ci sama classe sallallahu alayhi wa sallam dafa am saxaabi bu dafa am benn saxaabi bu ñëw ni ko ni ko ndax ngëm day yokk ak di wàññiku nee na bi dafa ñëw ci yonent bi laaj ko waaw ndax ngëm day yokk ak di wàññiku mu ne ko waaw yonent bi ni ko waaw waaw yokk ak day yokk ak di wàññiku mu ni ko mu ni ko man dafa am xalaat yu may dikkal man dafa am xalaat yu may dikkal yu ñaaw lool yu ñaaw lool jëm ci sama borom. jëm ci sama borom. jëm ci yow. jëm ci yow yonent bi. jëm ci man jëm ci man. man dama war a tuddaat baatu seede waaw ndax man dama war a tuddaat baatu seede yi. duggaat ci diine duggaat ci diine lislaam. yonent bi ni ko déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko déedéet. ni ko dama lay laaj. mu ni ko dama lay laaj. yonent bi ko bi moo ko wax loolu. ndax sàcc. waaw ndax sàcc. dina dugg ci boutique. dina dugg ci boutique. bu dara nekkul bu dara nekkul. mu ni ko déedéet mu ne ko xalaat yooyu. mu ne ko xalaat yooyu. moo lay wan ni moo lay wan ni. liimaan mi ngi ci sa xol. seytaane di bëgg ko dindi. seytaane nag bëgg koo dugg dindi ko. mu ni ko mu ni ko. saxaabi bi laaj saxaabi bi laaj ko ni ko. nan lay xamee ni man jullit laa. waaw man naka laay mën a nattee sama bopp ba xam ne jullit laa. donte maa ngi julli. donte maa ngi julli. maa ngi woor maa ngi maa ngi def li diine santaane maa ngi diine santaane. sallallahu alayhi wa sallam ni ko sallallahu alayhi wa sallam ni ko. istafti qalbak. istafti xalba. mooy euh, nuñ koy waxee ci olof. nuñ koy waxee ci olof. laajal sa bopp maanaam laajal sa xol. laajal sa xol defal autocritique ci sa xol. mu ne ko nu ma koy mu ne ko waaw nu ma koy defee. mu ne ko su la wóoree ne ko su la wóoree nii. am na yiw am na yiw. boo bëggal sa bopp boo bëggal sa bopp. am kenn ci jaamu yàlla am kenn ci jaami yàlla yi. koo ko bëggalul. ko bëggalul. sa njullit des na sa des na. allahu akbar. su fekkee ni. bu fekkee ni. am na safaan. am na safaan. booy muslu booy muslu. di ko daw di ko daw. te am na kenn koo bëgg. te am na kenn koo bëgg. mu dugg ca mu dugg ca. wala mu dal ci wala mu dal ca kawam. sa njullit des na sa njullit kon nag nattuwaay waa ngi noonu. mooy li sëñ Habib doon wax mooy moo tax moo tax. la sallallahu alayhi wa sallam waxoon xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu mooy guddi gu jot bala ngay tëdd toog dix minutes càmbaraat sa xol càmbaraat sa xol. seetaat ko. bu baax a baax bu baax a baax a baax. li nga wax ci bëccëg bi. li nga def li nga def. xeetu jëflante gi xeetu jëflante gi. ndax sell na ndax sell na. ndax sellul. soo ko dee def boo ko dee def. su yàggee bu yàggee. yàlla yàlla. moo lay def moo lay def tazkiya maanaam yàlla lay sellalal boppam. nga bëgg nga bañ nga bëgg nga bañ. kon boog yàlla nañ ci yàlla dimbali. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li sëñ Habib wax nag nee na nag li sëñ Habib wax dëgg la dëgg la jafe-jafe yi bari na lool waaye gannaaw sabablu waaye gannaaw ni ko sëriñ Babacar waxee lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya gannaaw su nit ki gannaaw bu nit ki sabab loo gën a gaaw li gën a gaaw ci xettali nit. ci xettali nit. jukki ko jukki ko. ci géeju jafe-jafe yi ci jafe-jafe yi. mooy istixfaar mooy istixfaar mooy nee na koo ko jox. mu xeeb ko. waaye buntu yàlla yëpp. waaye wallaahi astaxfirullah buntu yàlla yëpp. mooy caabi bi mooy caabi bi. Mhm. sëriñ Moulay sëriñ Moulay si nee na nee na astaxfirullah dafa composé ay turu yàlla. nee na sëñ bi nanguwul wax nag nee na xaraf bu ne am na turu yàlla bu ci bu bu ci astaghfirullah ndax day wane ni matoo. ndax dafay wane ni mato te li sëñ Habib doon wax sànq. te li sëñ doon wax sànq. yàlla kenn du ko jaay dara yàlla moom kenn du ko jaay dara. dégg naa sëñ Maodo na dégg na ci Pape Maodo si muy wax ni. Cheikh El Hadj Malick ci waxin Cheikh ci waxin. dafa song buntu yàlla yëpp dafa song buntu bi rang bi gudd. mu dem ci buntu. ne nee na mu dem nag ci buntu bi tudd. toroxlu toroxlu. fekk fa ñu bari. fekk fa kenn rang fa maanaam ñi fa rang bariwul. mu ñëw mu ñëw rek. fëgg fëgg. kookan la kookan mu ni yow mu ni yow yow yàlla yow yàlla. balaa nga naan ne fa. naan naam ne fa. ko waaw ñu tibbil ko nag. mu mu dugg. fa tabaarakallahu kooku sax beneen domaine kooku sax nee na beneen domaine la. waaye daal li jëm ci wàllu xol. waaye daal li jëm ci wàllu xol. téere boobu ma doon wax. téere boobu ma doon wax. ma ngay ma ngay jàngale ni. ma ngay jàngale ni. pour nga nga yegg ci ci sommet bi. pour nga mën a àgg ca some bi ca kaw. mooy doo yéene kenn. mooy doo yéene kenn lu bon. doo ko ko wax. doo ko ko wax. doo ko ko def doo ko ko def. su la ko nit defee ko nit defee. doo ko delloo doo ko ko delloo. bi ci desit bi ci desit. su ñëpp muccee ci sa làmmiñ bu ñëpp muccee ci sa làmmiñ mucc ci sa sa kàttan bañ leen a nga bañ leen a lor ci yow dara itam bañ a ci yow dégg naa sëriñ Abdoul Aziz na dégg na ci sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mu ni mu ni Si sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu dafa mës a ànd ak Serigne Cheikh. dafa mës a ànd ak Serigne Cheikh. ak moom ak moom. ak Serigne Mansour ak Serigne Mansour. ñu dem am lu ñu doon dox. dem am lu ñu doon dox. ñu toogee ba ñu toogee. Serigne Babacar seetlu ni. Serigne Babacar si seetlu ni. Serigne Cheikh Serigne Cheikh. pantalon la sol. la sol. teg ci jël teg ci jëlbaab. teg ci jël bi ñu ñëwee. ba ñu ñëwee. Abdou nee leen. mu ko mu ni ko. dafa mel ni Cheikh seen tubéy yooyu la sol. waa dafa mel ni Cheikh seen tubéy yooyu la sol. mu ne ko waaw mu ne ko papa waaw loolu la sol. mu ne ko demal ni ko bu demal ni ko bu mu ko solati. sëñ Abdou nee na mu ñëw. nee na sëñ Abdou nee na mu ñëw. wax ko ko wax ko ko. sëñ Cheikh ni ko. seen Cheikh ni ko. demal ni ko ndax dafa xaram. demal ni ko waaw ndax dafa xaram. <laughs> est-ce bi mu ñëwee. nee na mu delluwaat ci Serigne Babacar Sy. mu ne ko wax nga ko. mu ne ko wax nga ko. mu ne ko wax naa ko. mu ne ko lum la tontu. mu ne la lum la tontu. mu ko nee na ndax dafa. mu ne ko nee na ndax dafa xaraam. mu ne ko déedéet mu ne ko déedéet. xaraamul waaye waaye. moom su ko solee. moom su ko solee. damay bañ nit loroo ci moom damay bañ nit loroo ci moom. dina ca wax. nee na nit dana ca wax. ba wax ca lu ko lor ba wax ca lu ko lor. te seen maam daan na wax. seen maam daan na wax ni. xaaral ma tegati ko fi. xaaral ma tegati ko fi. ndax ñu mucc ndax ñu mucc. mooy waxkat yi mooy waxkat yi. mooy kon dara bañ a loroo kon nee na li mu wax tam bul lor kenn waaye tam bu bu dara loro ci yow tamit. loolu martaba la loolu sama classe gi moom nee na sama classe gi man. lu leen sharia lu leen sharia jox. ñu jël ñu jël sax ba dolli ci. fa tabaarakallaahu beneen bi ci des. beneen bi ci des beneen nuqta beneen. martaba bi nee na beneen bi. ñett la ñett la. mooy loo gis loo gis. mu nar a lor nit mu nar a lor nit. nga teel ko avertir. nga teel koo avertir. wax ko ko wax ko ko. Hmm. waxin bu jekk waxin nag bu jëkk dellu ci udu ila sabili rabbika dellu ci udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawizati alxasana wa jaadilhum billati hiya ahsan wallahi nee na ñetti martaba yooyu mu tudd nee na bu dajee sañ ngaa noppi sañ ngaa noppi jéema rawale sa bopp jéema nag rawale sa bopp. nangoo naa ci seen maam Abdou mu nee na nangu nangoo naa ci seen maam Abdou mu wax ni. dafa am benn nit. laaj maam Maodo bu laaj maam Maodo. ci benn aaya ci benn aaya. ni ko aleykum anfusakum ni ko aleykum anfusakum. laa yadurrukum laa yadurrukum man dalla man dalla iza htadaytum ndax kon ku nekk sañ nga res sa bopp. waaw ndax aaya boobu kon suñ ko déggee rek ku nekk kon sañ nga res sa bopp. maam moom ni leen. maam Maodo ni leen. gannaaw ba nga diglee la ba nga diglee li nga war a digle tere la nga war a tere. la nga war a tere. te bañ caa gis sa bopp. te bañ caa gis sa bopp. kon hmm. nag. nee na dañuy wax wax bu am solo sax tabaarakallaahu nee na ci ndigalu sëriñ Habib. la la li Serigne Mbaye Mansour si nee na li Pape Serigne Mbaye si Mansour waxoon. lay wax rek lay wax rek. Serigne Mbaye nee na Serigne Mbaye nee na. moom ko doon nee na moo ko doon nettali. dafa am fu ko sëñ Abdou Yabal dafa am fu ko sëñ Abdou ba mu waxee ba pare. mu leen. sëñ Abdou ma fi yebal sëñ Abdou ma fi yebal. wax ji lu ci rafet bu lu ci rafet. lu ci baax lu moom la moom la. fi yebal ñëpp ni eskay ñëpp ni mu ne lu ci manqué lu ci manqué. lu ci matul moom la moom ma fi yebal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu jox suñu Pape Moulaye tabaarakallaahu incha allah. ah suñu Pape Moulaye nee na guddi na. nee na waxtaan de. nee na li des mooy sëriñ bi na ñaan fa tabaarakallah nee na ndax sëñ Sidi Ahmed way na ba noppi nee na daa woyoon waa woyoon na wayu neex nag macha allah وإن كنت أسوى بي مدنسة بماء عفوك أرجو غسل أقداري micro fii sama Pape Moulay nee na ma jox sëñ Sidi Ahmed moo ko wax de Pape Moulay ne ne na nga waaye leen tuuti. أكرم الكرماء يا أرحم بماء عفوك نرجو غسل أقداري يا أكرم الكرم الخلق قد وسعت من فاجر ومطيع زاهد باد ورحمة الله كل الخلق قد وسعت من فاجر ورحمة الله كل الخلق قد وسع من فاجر ومطيع زاهد بارئ ورحمة الله كل الخلق قد وسع

نسب فما الدعي تغفورا كل أوزار إذا قوم إذا حلوا بمنزلة حلا نادى وعلات في الجو أنوار لله خوف إذا حلوا بمنزلة حلت فمن للكروب ومن للخطوب ومن للذنوب وما قد أهم فمن للكروب ومن للخطوب ومن للذنوب وما قد أهم فمن للكروب روبي ومن للخطوب ومن للذنوب وما قد أهاب وهبا للكروب ومن للخطوب ومن للذنوب وما قد أهى ومن إنك تجلي وتنجي من الهموم بأجمعها والسقام سواك تجلي وتنجي من الهموم بأجمعها والسقام الله فمن فمن للخطوب ومن للذنوب وما قد أها سواك تجلي وتنجي من الهموم بأجمعها والسقام ومن للذنوب أمتي مكة أم القرى الله بحرمة مكة الله بحرمة مكة الله بحرمة xurmati makkata allah bi xurmati makkata allah bi xurmati makkata allah bi بحرمة مكة بحرمة مكة أم القرى وحرمة كعبتها والحرام مكة أم القرى وحرمة طريق عمري طويل وزادي قليل وحملي ثقيل فكيف احتيالي عليك بدالي طريقي طويل وزادي قليل وحملي ثقيل فكيف احتيالي أرى عظم ذنبي فيشتد كربي ولكن ربي عظيم النوالي وزاد قليل وإن ثقيل نوالي أيا ذا الجلال أيا ذا الجمال أيا ذا المعالي عليك اتكالي أيا ذا الجلال ويا عليك قتالي أيا ذا الجلال أيا ذا الجمال أيا ذا المعالي عليك اتكالي فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء فعالي فأنت الرجال ومن الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي وأزكى صلاتي على ذي الصلاة شفيع العصاة وصحب وآل يا

إلى العلي وسيلتي ممد كل قوتي من بحره الغطمتم أبي الفيوض عمدتي إلى علي وسيلتي ممد كل قدوتي من بحره الغطمتم واغفر الذنوب آمين واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم يا رب واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم مددت يا لياني كاكدا لجبلي إليك توسلي بالمصطفى المعظم مددت يا علي يا علي كذاكدا لجبلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم ضاعف إله الحسنات وامح جميع السيئات وتممن الأمنيات في صحة ونعم ضاعف إله الحسنات وامح جميع السيئات وتممن الأمنيات في صحة منزلنا رب اجعلي جنة خلد يا علي بجاه خير مرسلي بحر السخا والرفم منزلنا رب اجعلي جنة خلد يا علي بجاه حبك القدير صل صلاة عمري بها على المدسر تطيل يا وزري في صحة ونعم صل صلاة عمري يا على المدسر تطيل يا وزري في صحة ونعم يا ربنا قصيدتي فلتجعلنها فديتي غدا لدى القيامة وكل عبد مسلم يا ربنا قصيدتي فلتجعلنها فديتي غدا لدى القيامة وكل عبد مسلم يا ربنا هديتي فلتجعلنها فديتي غدا لدى القيامة وكل عبد مسلم يا ربنا هديتي فلتجعلنها هديتي لدى القيامة وكل عبد مسلم صل على ذي البركات أحمد عين المكرمات ولا لأولي الدرجات وصحبه واحترمي صل على ذي الدرجات أحمد عين المكرمات والآل أولي الدرجات وصحبه وسلم محمد أحمد الماحي وحاشرنا نبي مرحمة توب وملتحم ارحل لطيبة لا تؤم سواها ارحل لطيبة لا تؤم سواها فعساك أن تحظى برؤية طه نار الحبيب قلوبنا تهوى نار الحبيب قلوبنا تهوى وإذا وصلت لهكت حلم تربها هو اسمد العينين وهو جلاها دار أبي فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الهنا فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها nee na xol sedd na boo ca boolee nag dégg ko beneen affaire lay doon haajartul xalq turran fii hawaaka wa aytamtul ayaala li kay araaka ah nee na loolu doy na waar de papa ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal sa fan yàlla yàlla sàmm la yaa suñu rakk bii di alfaahima yoro tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin la waxoon sànq rek la ma waxoon sànq daal laay waxaat damay bañ wax ba catule damay bañ a wax ba catule xanaa li ci des ñu mottalee ko ñaan li ci des ñu mottalee ko ñaan yal na yàlla may leen gudd fan ku ànd ak wér may ko suñu kilifa yépp yàlla sàmm leen aar leen ci barke yonent bi ñu yàgg rek di ànd muy rafet rekk ñun ak ñi ko sékkal ñëpp ñun daal ci lii rek la ñu xaj lii rek lañu xam waxante lu baax te muy lu mu gëm lu ñu gëm nag defante lu baax te muy lu ñu gëm itam ndax ki ñu bokk moo tax bokk nañ ko yaatu na ba kenn mënu koo séddoo foo gëstu gis ci sa morom loolu nag bu la ko yàlla defaree waaw da ngay boole lépp rek ñaanal ñépp rek noppal sa bopp yal yàlla sàmm njaboot gi fi daje mbokk yi fi daje sàmmal ñu Serigne Sidi Ahmed yàlla mu doon suñu mujj daje fii amiin nii ñu ko fi daje ren yàlla nañ ko fi daje ndeg di ma wax leen amiin kenn bañ a manqué soxla yi fi nit ñi andi lu mu bari bari bari bari bari yàlla am na ko mën na ko yal na ko yàlla faj ci barke yonent bi amiin nee na nag wéradi bari na yal na yàlla may wér ñi wéradi sax te yëguñu ko ñoo ñoo gën a bari ñi wër te xam waaye daal yal na yàlla saafara ñëpp ci barke yonent bi kilifa diine yi ñu am ba tax tey jii Sénégal nekk ci loo xam ni muy jàmm ji yal na yàlla fay ñu leen ñu nit tam nañu am ngor gu toll bi bañ a yàq loolu ci barke ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal góor ñi di ñaanal jigéen ñi di ñaanal réew mi itam ñun dañuy yaatal rek duñu mës xatal ndax yàlla dafa yaatu yàlla bu yaatu juddit li ko wax mooy ku mu gis yéene ko lépp ci yiw ci mbaax ci jàmm yàlla ñu amin yàlla defal ñu ko defal ñu ko ci kër amin defal ñu ko ci njaboot yi ñu delluwaat delloo si xel yi ndax sëriñ Alfa wax na ko léegi bu ñu yokkaat bu ñu découragé yàlla moom buur la boo xam ni yaatu na ba kenn xamul fu mu dooree kenn xamul fu mu yem yàlla moom nañu wéeru ci moom yaakaar ko wóolu ko wan ko ni yow rek bu ñu suñu bët xonte am mu ñu yow yàlla feneen fu ñu daw jël ci yow rek la ñu dellu si yal nañu yàlla fajal aaj yi kon ñu ngi koy yemale foofu ndax njaayeen yeeg njóobeen yi ah xam naa ne ñu ci bari weeral bi bu ñu dencul mburu yi àndaale ko yi ñu ci bari weeral bi xiif nañu waaye jotaay bi waaw ëppoon naa dagg sànq ni ko sëñ maam as ñaanewoon alhamdulilah gis-gis la woon waaye fi mujj moo dàq li weesu lépp macha allah yàlla nañ ko jariñu ñun ñëpp yàlla defal leen jàmm defal ko daara si daxmet ak mu mu rek ba ca tegu gënal weesu amin yi ngeen fekk yéen ñëpp tamit ah, nee ci barke Sidna Mohamed barke bàyyeem Cheikh Sid Mohamed Moustapha barke maamam Cheikh Al Khalifa barke maamam yi ci ak Cheikh Al te mu ànd ko ak ay magam yii ñoom moom Assa ñoom Mansour xale yi macha allah góor ak jigéen yal na yàlla sàmm leen làq leen fa yàq ay guddi ci barke te ñun ñëpp ñu bokk ko ak jullit ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam ba balaa sëriñ bi ñaan dafa am ay information yu fi ñëw euh, gàmmu ñetti mbaar 26 mai <laughs> waaw nee nañu yeewu sëriñ bi sëriñ bi kon ñaanal ñaanal ñaanal après ñu joxe information ñaanal ñaanal nee nañu jàng nee nañ nañ tànn ko ngi wax sëñ Sidi Ahmed ni ko mi ngi ànd ak xaaj Duudu May sëriñ ak alxaaj Papa Dieng ñoom itam ñu jógee ba Mbuur ñëw Tiwaawan ñu ko laal bisu sëñ Sidi Ahmed bu ñu doon raami mooy li mu wax sànq moo leen ko may ci ci bopp ñoom itam ñoom it waaw tabaarakallaahu ci diggalu kilifa yi ñu ah suñu mënoon laajal Chérif nee na xaddiya maam Abdou Aziz Dieng sëñ Abdou Aziz Dieng bu rajo Dunia ne sëriñ bi nee na Aziz Dieng bu rajo Dunia ñu ngi bu baax nee na xelam moo fattoon moom itam yàlla ñu boole kóllëre yàgg na turandoo am na mission bu ñu santoon man moom ak Mansour sama mag ñu des ci àll bi trois mois yoo xam ni tàqale ko wuñu benn yoon néeg sax lu ci bari maak moom ñoo ko daan bokk ndeysaan kóllëre boobu ñu ngi koy feddalik moom ñu ngi koy déglu itam ñu ngi koy déglu itam euh, réew mi dafa bari nit ñi dañu bari wax nit ñi dañu bari wax ku nekk ngi wax wax waaye borom xam-xam waaye borom xam ak borom jàng du benn macha allah moom ay waxtaanam dañ koy déglu ndax yëg nañu seetu ca lu neex ñu wala lu ko cay naqaar yàlla la cay seet tabaarakallaahu papa du ñu ngi feddali kóllëre yi nee na su kenn mënoon jóg ñu laaj addiya shérif ndànk la temps sëriñ bi di ñaan ñu jox ko shérif muy suñu addiya digganteem ak maamam sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nee nañu yee sam ñaan ku nekk mu jàng fatiha salaatal fatiha ayatal kursi yi lixlaas liñ fi wax lépp ci soxla wala liñ fi waxul yëpp yàlla xam na ko ci ñun. la ci yiw ci ñun. yàlla nañ ko yàlla defal. te yàlla nañu yàlla may déwén ñu daje. bisimilah. Seydou Seydou Wele boobu suñu kilifa. nee na tabaarakallaahu alxaaji Seydou Wele. rahmatullahi alayhi. rahmatullahi alayhi. ñu boole waale ko ci ñaan bi ñu boole ko waale ci ñaan bi. moom itam yal na yàlla teeru ko yërmande. moom it yal na ko yàlla teeru ko yërmande. suñu kilifa yi fi tuddaatoon sànq yëpp. mboolem ku nekk ca barsax ak mboolem ku leen te yàlla yërëm leen te yéexe te na nañ jàng ñaan bi jàng leen ko après ngeen may ndànk yoon sëriñ bi amin wax leen amin amin bu leen fàtte addiye shérif na am ku jug laaj addiye shérif wax leen amin na am ku jug laaj addiye shérif bi yal na yàlla guddal